alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad faqad nashaat makanatu almasjidi wa taraaraat fi qulubi almuslimin mundu ahdi annubuwa xaytu kaana masdara annuuri walilm والبصيرة والعزة للإسلام والمسلمين لذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه فأعلى ذلك شأن المساجد ورفع قدرها أيها الإخوة والأخوات إن الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم هو دور المسجد في بناء المجتمع الإسلامي wa tamma taqsimuhu wafqa al-anaaqir at-taaliya awalan taarifu al-masjid ثانيا أهمية المسجد في الإسلام ثالثا نبذة عن تاريخ المساجد في الإسلام رابعا آثار المسجد في حياة المسلمين خامسا مفاهيم وممارسات يجب أن تصحح mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di am mbégte ci daje ak sunu mbokki jullit yi tey ci bërëb bii nekk kër goo xam ne këru xam-xam la doon këru gëstu ak dajewukaay yi gëstukat yi di waxtaane waxtaan woo xam ne it itteel nañu lool ndax kaadar bi mu dugg mu di activités yi ñuy def te teg ko ci kaw sunu réew wala sunu capital bi nga xam ne dañ ko def mu nekk capital de la culture islamique ci at mi ñu nekk muy 2007 loolu bépp sénégalais am nga ci mbégte ah, am mbégte itam ci activités yi nga xam ne nag ministère bi ñu ngi koy def mu jëm ci wàllu lislaam doon loo xam ne eh, miinee su ko lool lool lool waaye danaa ci dellusiwaat waaye danañ ci am mbégte bu baax a baax a baax ci eh, leeralaat li nga xam ne mooy liñ war a waxtaane mu jëm ci rôlu jàkka ci tabax société islamique jàkka kenn ku nekk xam na ne palaasam ci lislaam bu la neexee nga ne su fekkee da bëgg jullit boo xam ne jullit pur la bëgg citoyen boo xam ne bu complété la bu mat bëgg nit koo xam ne bu nekkee ca këram boroom kër lay doon bu jub bu dee jigéen jigéen ju jub lay doon bu dee koo xam ne njiitul ñuy liggéey ci suufam la moo xam njiitul réew la wala njiitul ab ministère la wala njiitul ab société la su fekkee ne danga nga caa bëgg a am ka ci ñooñu ñëpp wutal jàkka ji gën ci jàkka su fekkee ne ay jullit lañ jamono yu jàkk feebaree dellu gannaaw doyee di tuuti ci kanam nit ñi mu feeñ ci mboolem yooyu ma lim kon kàddu gi gàttal conférence bi mooy soo bëggee nit ku mat nit wutal jàkka ju mat jàkka soo bëggee nit ku mat nit wutal jàkka ju mat jàkka tomb yiñ fas yéene waxtaane nag juróomi tomb rek la bi ci jëkk mooy danañ romb ci lu gàtt gàtt définir xamle jàkka mooy lan liñ ci jublu nun ak ñaareel bi importance bi jàkka am ci lislaam ci boppam ñetteel bi danañ wax tuuti ci histoire jàkka ci lislaam ñeenteel bi danañ wax ci athar impact yi nga xam ne jàkka am na ko ci dundu jullit juróomeel bi dana am ay tomb yu ñuy wax yoo xam ne mu ngi jëm ci wàllu wàllu defaraat am na ay mbir yoo xam ne noo koy dund ci biir jàkka yi mu doon ay njuumte te yëgunu ko mu aaja defaraat yooyu tam nu jaar ci mujje ko insha allahu daldi jeexal waxtaan wi ci jàmm jàkka buñ koy wax mooy masjid yutlaqu almasjid ala mawdi alsujud thumma ittasaa almaana ila albayt almuttaxad lijtimaa almuslimina lilsalat allati hiya min ahami arkaniha alsujud masjid buñ ko waxee li muy firi mooy ab sujootukaay xam nga ne sujoot benn xaaj la ci julli waaye bokkul ak bokkul ak julli maanaam sujoot rek du julli waaye nag sujjóot mooy ponk bi ëpp solo ci julli moo tax buñ tuddee jàkka wax arab ne al masjid muy palaasu sujjóotukaay lim ci jublu mooy palaasu jaamukaayu yàlla ndax dafa tànn tomb bi nga xam ne mooy jaamu yàlla gi gën a xóot ci jaamu yàlla yi ñu tuddee ko tur woowu ndax mënoon nañu rek ne musalla maanaam jullikaay waaye li ñuy bañ kon nga defee ne jàkka julli dong dong lañ koy doyee waaye tànn gim tànn tomb bi gën a xóot ci jaamu yàlla yi tudde ko jàkka foofu am na maanaam mu sew mu nekk ci biir mooy nga xam ne jàkka jaamu yàlla moo ko tax a jóg jaamu yàlla nag bunt bu yaatu la danañ ñëw ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne ba jàkka doonee jàkka doon nañ ko jaamu yàlla kon kooku mooy jàkka ñaareelu tomb yi mooy importance bi nga xam ne jàkk am na ko ci lislaam mu jàkka rot da ci alquranul karim vingt sept fois ñaar fukki yoon ak juróom ñaar baatu jàkka ñëw na ko ci alquranul karim benn bu mu ko fi tudd bu nekk day yëkkati mbiram di ko tagg di wax ak am solo defe naa suñu yemoon foofu rek dana doy nu xam ne jàkk am na solo ñaareel ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy gàddaay jóge màkka di ñëw madina bim daataan agsi madina toll ci béréb bu ñuy wax xubaa dal ci ñu ñuy tuddee bani amr ibn awf lam fa jëkk a def mooy ne nañ defar jàkka te foofu foofa dafa faa jaar rek nar faa yendu fanaan fa bu ëllëgee mu xëy dem mu ne nañ defar jàkka ñu defar jàkka diir bu gàtt bi mu fa am mu julli ko fa continuer jàll béréb boobu mu doon jullee mooy masjidu Quba ba tey képp ku dem Madina ci yéen di aju wala muy omra ji gis na masjidu Quba bi mu weesoo foofu dem ba àgg ci béréb boo xam ne jege na Madina lool tuutee ko tee àgg waxtu julli ajuma jot mu ne ah nañ defar jàkk gaa ñu samp gas samp fii wut mbaar defar mu julli fi ñoom jullik ak juma mu njëkk julli ci Madina béréb boobu mu ngi ci fu ñuy tudde qurbaan tey ci Madina ñi koy xam ci ñu koy tudde masjidul jumaa ba léegi mu jóge foofa agsi nag Madina bi mu agsee lim njëkk a def mooy tàmbali ci construire jumaam ji nga xam ne moom lañ xam tey muy jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabax ko ci anam goo xam ne moom ci boppam da ca doon bokk loxoom bu tedd ba di fab ci xeer yi di gas di samp ñuy defar ba jàkka ji tàmbali nag di def la taxoon jàkka ju kon loolu ñetti jéego yooyu yandu fi béréb fanaan fa defar fa jàkka jaaraat fi béréb julli àjjuma jot nga defar jàkka agsi fi béréb bi nga daataan wax ne fu ñuy liggéey ak ana marché ba nga defar jàkka loolu day wane am solo boo xam ne jàkk am na ko solo ci lislaam ji nu nekk ñetteel bi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ci kàllaamaam wax na ne jàkka moo gënal yàlla ci béréb yi nee na ahabul bilaadi ila allahi masajiduha yàlla li ko gënal ci béréb yi mooy jàkk kon loolu su ñu yemoon foofu képp doy nañu xam ne jàkk moo gën lépp ñeenteel ba moo di borom bi tabaraka wa taala ci alquraanam moo waxal boppam ne jàkk sama yëfa maanaam maa ko moom te wax dëgg yàlla yàlla moom lépp waaye buy tànn yëfam buy tànn lenn di wax nag lii nag mooy sama wal kenn ku nekk xam ne loolu lu rëy la aaya bi xale bi doon jàng léegi ma kaana lil muminina an yaamuru masajid allah jàkkay yàlla yi bokkaale munta dundal jàkka munta dundal jàkka yàlla waxaat ne innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmi al wa aqama salata wa aata zaka kii dundal jàkka nee mooy ki gëm yàlla gëm alaxira di taxawal julli di joxe asaka te nee na boole ko ak bañ a ragal kenn ku dul yàlla kon jàkka loolu ci wone ni am na solo la ba tey borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada jàkka yàllaa ko moom jàkka yàlla moo ko moom kon li ma doon nett li mbokk yi léegi kilifa bu tedd googu am ku ko doon wax naan ko léegi ndax jàkka ji bu bokkee ci kuréel bi mën naa cee julli mënuma cee julli mu ne ko kuréel bu mu mën a bokk doo ci mën a julli ndax jàkka jàkka yàlla rek lay doon nit ko door caa mën a julli waaye bu ñu ne jàkkee sàngam ñooma booba jooju jàkk nee na ko doo ca mën a julli juróomeel ba borom bi tabaraka wa taala dig na ak pay seede ci ngëm yàlla ci képp koo xam ne taxaw na di dundal jàkka dundal jàkka nag ci ñaari mbir lay amee tabax ko ci la bokk di dem di fa julli ji nag ci la bokk mooy bu mag ba kooku mooy dundal bu mag bi nga xam ne ñépp a ko man ku am alal la ku amul alal mën ngaa dem julli ji ci jàkka ja jariñu ci njariñ ya fa nekk borom bi tabaraka wa taala ne innama yaamuru masajid allahi yàlla moo seedeel boppam ñi nga xam ne ñooy dundal jàkka ñooy ñan nee na man amana billahi ku gëm yàlla wal yawmi al axiri gëm alaxira wa aqaama salaata te nangoo taxawal julli wa aata zakata walam yaxsha illa allah ki mel noonu borom bi tabaraka wa taala tagg na ko kon juróom-benneel xadis yu bari ñëw na jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nit ñi nañu góor góorlu ci tabax jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man bana lillahi masjidan yabtagi bihi wajha allahi bana allahu lahu baytan fi ljanna nee na ku tabax jàkka te yàlla rek tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wax de ku tabax jàkka te yàlla rek tax ne xamal ne yàlla tabaxal na la kër ci àjjana waxaat ci beneen riwaaya man bana lillahi masjidan ka mifxasi qataa bana allahu lahu baytan fi ljanna foofu nag la yërmaade ji nekk nee na ku tabax jàkka joo xam ne dafa toll ne tàggum pérentaan sooy boo rek nu tudde ko tàggum petax ndax lu bari ci ndaw ñu duñ xam luy soo tabaxee jàkka ju toll ni tàggum petax nee na yàlla tabaxal na la kër ca àjjana waaw ndax jàkka dana toll ni tàggum petax ah? kenn mas naa gis jàkka ju toll ni tàggum petax kenn gisu ko waaye loolu na nga koy firee mooy bi ñuy tabax jàkka ji nga par nga yor sas tuut sas tuut fukki dërëm ñaar fukki dërëm téeméer loolu nga am nga ñëw def ko ci jàkka ji tabax nga jàkka ju toll ne tàggum petax sa kër nga foofu ci ajala su fekkee yàlla kese moo tax kon lii bu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax màggaayu jàkk moo tax juróom-ñaareel bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim wax ci lum dig nit ci loo xam ne ku ko def borom bi ci mbirum jàkk la aju de yàlla dalay bindal ay tuyaaba kenn xamul nu mu toll nee na ma min rajulin yatataharu fa yuxsinu alwudu summa yacmadu ila masjidin min hadihi almasajid illa kataba allahu lahu bi kulli xatwatin yaxtuuha xasana wa yarfacuhu biha daraja wa yaxutu anhu biha sayia nee na amut kenn koo xam ne dana toog ci këram ba mu yàgg mu laab bu dee jàpp ko war mu jàpp bu dee sangoo ko war mu sangu daa di jubali jàkka ja jaamu yàlla rek yëkkati ko ne jéego bu seqeeb jéego borom bi tabaraka wa bindal na ko tuyaaba kenn ku ne xam ne tuyaaba dañ koy ful mu nekk fukk gën ngaa néew mu seq beneen jé jëmmi jéego boobu mu bindal ko ci daraja fa moom ju gën a kawe su fekkoon ne premier étage la dëkkoon mu yëkkati ko ba deuxième wa yaxutu anhu biha sayyi'a mu faral ko ci bàkkaar ci benn jéego bi benn jéego bi ñu bindal la ci tuyaaba yëkkatil la ci daraja fa sunu boroom faral la ci bàkkaar nga seq beneen mu defaat noonu nga seq beneen mu defaat noonu ba ba ngay àgg ci jàkka ja ah waaw lii kon jullit yi su amul woon jàkka fuñ jëm waaw suñ ko amoon ba noppi duñ seq ay jéegu jëm fa itam kon fuñ jëm mooy kon tuyaaba yi dana néew bàkkaar yi mën naa bari ndax lu koy far néewu fa te itam mën naa indi ay jafe-jafe ci daraja yu bañ a yëkkati ko juróom-ñetteel bi moo di nag jeexit yu rëy yi nga xam ne moom la jàkka di def ci nit loolu mooy wane importance bu mag bi jàkk am jeexiit yu rëy ndax li taxoon yonente bi di santaaneeg yàlla naan sama yëfaak tabax leen jàkkaak yooyu yépp li ko waral mooy li jàkka di jur ci boppam su fekkoon ne jàkka ci biir société bi dafa nekk benn institution boo xam ne bu ndaw la bu amul solo la kon importance boobu du am waaye nam toll fa yàlla toll ko fa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu moo tax moo tax euh, jàkka doon loo xam ne lu am importance la kon juróom-ñetti yëf yooyu yuñ juqat rekk la ci leeral lenn ci importance bi nga xam ne jàkka am na ko ci lislaam ne daal genn béréb benn béréb munta jàkk munta jub munta aw yoon lu dul su fekkee jàkka dafa am ngir ngëneel yu bari yooyu ñu tudd kon daal li ma doon wax mooy soo bëggee nit ku mat wutal jàkka ju mat ñetteel bi mooy histoire nag jàkka ci lislaam kenn ku ne xam na ne jàkka ji ñu jëkk tabax ci suuf moo di almasjidu alxaram inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubaarakan wa hudan lilaalamin borom bi tabaraka wa taala nee na nee na jàkka ji njëkk ci kaw suuf mooy jàkkay màkka abu dar dafa laaj yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya rasul allah ayu masjidin wudia fi l ardi awala yow yonent yàlla bi jan jàkka lañ jëkk a teg ci kaw suuf qaal al masjidul xaram mu ne ko masjidul xaram bi nekk màkka qultu summa ay qaal al masjidul aqsa nee na ma ne ko bu ca tegu bi yàlla amalee jàkka jooju ba àggal jan ñoo ca tegu mu ne ko al masjidul aqsa mooy jàkka ji nekk quds te ñuy ñaan sun borom tabaraka wa taala mu dellusi ci loxo jullit yi qultu kam baynahuma abu zar mooy laaj de nee na ma ne ko ñaari jàkk yooyu seen diggante nu mu toll ci temps qaala arbauna sana mu ne ko seen diggante am na quarante ans diggante biñ tabaxee jàkk ji ci màkka ak biñ tabaxee jàkk ji nekk baytul maqdis summa qaal aynama adrakatka alsalaa fa sallih fa alfadla fiihi mu ne ko fa la fi julli fekk rek jullil foofa ndax foofa la ngëneel la nekk kon nag jàkka ji gën a tedd ci jàkka yi te gën cee màgg mooy al masjidul xaram mooy jàkka ja nekk fa màkka ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy nee na moo ne genn julli goo fa julli am nga yoolu cent ci ay prière téeméeri junni julli bu jàkka jooju jàllee ji fa tegu ci wàllu tiraanga mooy jàkka joo ji ma la tuddal léegi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ koy tabax ma nga woon ci biir mason ya di gas ak indi ci xeer ya ak di samp kooku mooy jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madina mooy jàkka ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la déparé nag tasaare leer gi ci àdduna fa la saxaaba yi jóge indi lislaam mu tasaaroo ci àdduna ba agsi fii nu toog fii di ko wax kon jàkka joojee doonul jàkka joo xam ne ju ndaw la moom itam jàkka jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fa julli genn julli am nga yoolu junni julli am nga yoolu junni julli jàkka jooju kon bokk na ci ay ngëneelam moo yar saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ doon lañ doon ñooñu jóge fa ñoom yar ñañ yar bañ doon lañ doon ba àgg ci nekk li ñu tuddee xayrul quruun maanaam siècle bi gën ci siècle yi li tax mu doon ba ci gën mooy dañoo yaroo ci biir jàkka jooja yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na xayru ummati qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ne li gën ci sama xeet mooy siècle bii ma doon dunde ña ca tegu ñoo ca tegu ña ca teguwaat teguwaat ca suñ tuddee jàkka ci histoire lislaam am na ay jàkka yoo xam ne xel daf ciy dem nit ki mënu ko bañ a tudd lu mel ne jaami Amr ibn al-Aas ci Misra moske bi nga xam ne Amr ibn al-Aas muy saxaabi yi bu màgg moom la tabaxoon ci Misra ci 642 euh, muy tolloog 21 ci ci gàddaay gi kon kooku jàkka ju teel la liggéeyam bu rëy ci Égypte jéggi na dayoo aljaamiu al umawi fi dimashq banu umaya jumaa jiñ tabaxoon ci damashq moom itam kenn mënu koo fàtte jaamiul mansour fi baghdad jumaa ji nga xam ne moom la abbas yoon yi tabaxoon ci baghdad kenn mënu koo fàtte jaamiu zaytuna bi tunis jumaa ji ñuy tudde zaytuna ci tunis yi mëne su ko fàtte bi al maghrib bi faas juma bi ñu tudde Qarawiyyin moom itam mu nekk fees kooku kenn mënu koo fàtte moom it aljaamiu al azhar juma bi ñu tudde al azhar moom it kenn mënu koo fàtte wa kulluha qadima ummirat akthara min alfi aam li lépp ay juma la yoo xam ne dund nañ lu ëpp junniy at ba noppi taxawalat aktharuha ila jaamiat lu ëpp ci jumaa yooyu yematul ci nekk jumaa waaye fal wëlbatiku na nekk ay université yoo xam ne lim génne ci aw nit kenn xamu nu mu toll mënee su la fàtte it jumaa yi nga xam ne ñoo nekkoon tomb koto lim génne ci ay nit ak boroomi xam-xam ak jumaa ji nekkoon piir nga xam ne dafa mujj nekk ab université piir ci Kajoor fii ci Sénégal mujj nekk ab université boo xam ne la fa génne ci boroomi xam-xam kenn xamul nu mu toll ak la fa jaar bokk na ci ñooñee alqaadi ma jaxate kala doon boroom xam-xam bu siiw ci wàllu atte di boroom xam-xam boo xam ne ci way ci arab euh, fa mu toll jéggi na dayo ku mel noonu euh, ci université boobu nekkoon Pire ci ña fa jaar ci la bokk ak Mor Xujja Kumba Jóob al Kokki ki nga xam ne moom itam borom xam-xam bu siiw la ci wàllu xam-xam ab université taxawoon foofu ci piir boo xam ne jumaa la woon ba mu yàgg mu soppi ko université génn waaye sax ay diplôme yoo xam ne boo déggee tey ñu naan fóore diw fóore la diplôme la woon am na lu luñ ci jublu woon boo déggee ñu ne diw sàngam alfahim la wala alfa la dafa dem ba mu yàgg alfa lañ koy tuddee ba léegi da ngay gis tur yooyu dafa am ay des ci nit ñi sax ndax nit ki da daan jàng ba doon fóore ñu tudde ko doom doom ja orée ñi jaar ca tur wa sax day mujj moom fóore lañ koy wax ba mu yàgg ñu naan fóode nga gis alfaahim noonu lañ ko tuddee woon nit kaa jàngoon ba am diplôme boobu xale yi ñu ko tuddee ñu naan leen alfaahim ba mu yàgg ñu ko ne leen alpha moor ci diplôme yu kawe yi ci la bokkoon nit ki da daan jàng ba nekk moor su ko defee ñu ngi koy tuddee ci ay xale ñi di leen tudde moor day dem ba mu yàgg nga ne moor aw tur la ndekete ab diplôme la woon ne ko noonu euh, tafsir nit ki daf daan jàng ba àgg ci tafsir moo doon diplôme bi gën a kawe nag nga xam ne ko ca àgg daal mel na ne doctorat d'état moom am nga ko ca yooyu jamono te loolu lépp ay diplôme yoo xam ne dañ doon génne ci jumaa jooji soppi ko ab université nekkoon nekkoon Pire kon histoire jàkka ci lislaam baawaan na tàmbalee ca penku ba agsi ci sowu génne ñoo xam ne ci ay nit boo leen jëloon tey kenn ku nekk nga bëgg a wax ci ak dundam loolu dafay doy sëkk ab conférence kon kooku mooy liggéeyub ja jàkka ci xeet wi buñ ñëwee nag ci sun tomb ñeenteel muy athaarul masjid fi xayaati almuslimin xata yatabayana lana bi jala xaqiqatu dawr alladi yaqumu bihi almasjid fi tawjihi xayaati almuslim la budda min waqfatin fi bayaani athar almasjid ala muxtalafi manaxi alxayaati altaalimiya waltarbawiya walijtimaaciyati walfikriya wa hada ma sawfa nushiru ilayhi fi niqaat taaliya pour nu mën a xam dëgg-dëgg jàkka lan la jariñ askan wi faw war nañoo xool impact yi nga xam ne moom moo jokkaloo ci jàkka moo juddoo ci rôle bi nga xam ne moom la jàkka joué biñ ci njëkk a jël mooy atharul masjid ak taalimiya impact yi nga xam ne jàkk indi na ko ci wàllu enseignement wax naa ne léegi ne lu bari ci ay jumaa yoo xam ne dafa sosu woon ci lislaam dafa dem ba mu yàgg mu soppiku université kooku daf lay jox daf lay jox jote gi nga xam ne jàkk ci boppam jote na ko ak jàngukaay ndax lu tax mu nekk jàkk ba mu yàgg mu ko soppi ko ab université dëgg la jullikaay baa nga fa waaye université baa nga ci biir ñi dafa jàngale mboolem xeeti xam-xam yi boroom xam-xam yi ngay dégg yépp yu mag yi ak moo xam seen spécialisation bu mën a doon yi nga xam ne léegi Occident tey seen xam-xam ci ñoom lañ ko jëlee ñooñu koo ci jël muy ibnu sina mul Biruni muy kenn ku ci nekk nga xam ne am na ci ñoo xam ne ñoo sos ay xam-xam yu yoo xam ne kenn xamu ko woon lu leen jiitu ñooñu ñëpp ci biir jàkka lañ leen yare kon jàkka dafay won ne am na lum jote ak ak jàng ci jamono ju sore sori ci taarixul islaam lañ door a séparé wut ay école tudde ko école wala ay jàngukaay yoo xam ne dañoo ber njàng ma fële jàkka ja nekk fële ànd ak ne ber googu yi ñu ko ber wane ne lee école la jàngukaay kese la loolu musu la tàqale jàkk ak mu doonu jàngukaay itam maanaam musu ko tàqale loolu téewul jàkka joo ci mas a dem ci taarixul islaam imaam day julli ba noppi nga seen jàngukaay ya tàmbali moo xam jàngukaay alxuraan la wala jàngukaay xam-xam waaye jàkka ja moom day dund ci waxtu wu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee na ci jàng xam-xam ci jàkka Uqbat ibnu Amir radiyallahu taala anhu nee na xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi suffa fa qaal ayukum yuxibu an yaxduwa kulla yawmin ila butxaan aw ila aqiq fa yatiya minhu binaaqatayni kawmaawayn min gayri ismin wala qatci rahim fa qulna ya rasul allah nuxibu dalik qaal afala yagdu axadukum ila almasjid fa yaclama aw yaqra'a aayatayn min kitaab illahi azza wa jal xayrun lahu min naaqatayn wa salaasun xayrun lahu min salaas wa arbaun xayrun lahu min arbac wa min acdaadi in wa min acdaadihinna min al ibil Uqbat ibnu Amir nee na benn bis yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn fekk ñu toog nee na mu ne leen kan ci yéen moo bëgg nga xam ne daal bëgg na waaxoo fii ba àgg ci Butxaan benn place la bu nekk ci Madina wala mu waaxoo ba àgg Aqiq ay béréb yu jege la nga xam ne dañ naan ko boo waaxoo ba ñëw foofu rek am na ñaari gëléem yu la fay xaar yoo xam ne mooy yi gën a gànjaru mooy yi ëpp solo ci gëléem yi bu doon tey danga nga boo demee foofu ñaari voitures yi Mercedes nga la fay xaar kan ci yéen moo bëgg waaxu ba àgg fii ci poste Médine bi am na ñaari Mercedes yu ko fay xaar yu bees ay voitures dafa mel ni loolu la leen wax question boobu suñ ko wax ndax kenn ku koy bañ a ngi fi nee na bi mu leen waxee la ñu ne ko ah nun ñëpp di bëgg nañ loolu nun ñëpp bëgg loolu mu ne leen ku ci xëyee sa kër dem ca jàkka ja jàng fa aayab alxuraan walla nga jàng fa masalam xam-xam wala ñaari masala loolu moo gën ci moom mu waaxu ba àgg foofee ñi jox ko ñaari gëléem yooyu may wax ne ko ñetti laay yi wala ñetti masala yi moo gën ci moom ñetti gëléem yi ñeenti masala yi moo gën ci moom bu doon ñeenti gëléem lu masala yi gën a bari loola day gën ci moom kon loolu daf lay soññi ne waaxu dem ca jàkka ja ñuy jàngale ci sa wetu kër nga dem jàngi fa kooku ku àllu am importance la abu hurayra radiallahu taala anhu dafa jëli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne amul ñenn nit ñoo xam ne danañ dajaloo ci benn néeg ci néegi yàlla yi ñu jàkk di jàng xam-xam di ko jàng leente nee na lu dul malaayika yi ñu ngi leen peeg wër leen di leen garder cortège nee na te yërmande yàlla mi ngi wàcc ci ñoom te borom bi tabaraka wa ma nga leen di waxtaane fa mu nekk daan xool leen sama jaam ñi liñ xëye tey am ci ñoom mbégte lool mu ne amul benn waay boo xam ne dana sóobu aw yoon di sàkku ji xam-xam lu dul borom bi tabaraka wa ma ngi koy jàpp ndalal yoon wu koy yóbbu àjjana mu ne képp koo xam ne jëfam jëmalewu ko kanam na xam ne aw askanam du ko jëmale kanam bu la jëf jëmalewut kaw askan du la jëmale kaw wa man yu yubqi bihi amalu la yusri bihi nasabu koo xam ne sa jëf yóbbuwu la kaw saw askan du la yóbbu kaw lu mat a bàyyi xel ka nag lam yaqtasir ad-dawr at-ta'limi lil masjid ala ar-rijal bal naafasat alayhi an-nisa lima akhrajahu al-bukhari fi sahihi عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul defee ne jàkka spécial la pour góor ñi waaye jigéen ñi it njàng mi dañ cee am ab cër Abu Saïd al Xudri ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis jigéen ñi dañoo def benn délégation ñëw ne ko nun kat góor ñaa ngi nuy bëgg a not ci yow ndax ñooy takkoo takkoog yow di jàng xam-xam bu dégg bëccëg wutal nu bis boo xam ne da nga nu ciy jàngal mu wutal leen benn bis boo xam ne fa lay dajeeg ñoom di leen jàngal di leen waar kon ñi xam ne jàkka dafa ubbi buntam ubbil ko mboolem société bi moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan wax naan bu leen tere jaami yàlla yu jigéen ñi bu leen leen tere jàkka yi maanaam jaami yàlla yu comme ni ngeen doone jaami yàlla yu góor ñoom lañ doone jaami yàlla yu jigéen kon bu leen leen tere jàkka yi jigéen ñi nañuy teewe jàkka yi comme ni ko góor ñi di teewe bu dee dañuy julli ñoom it dañoo bëgg a julli bu dee dañuy sàkk xam-xam dañoo bëgg a xam ñoom itam kon lislaam ci njàng tënkul jigéen wax ne ñu ko jàngal jigéen ji dafay jàng dafay xam comme ni nga xam ne góor itam dafay jàng day xam ndax société bi ñaar ñëpp la soxla ni soxlaa boroom xam yu góor noonu la soxlaa boroom xam yu jigéen li xew sax ñuy wax nga xam ne bu ñu ne góor ñi lii ñu ne jigéen ñi aajo war a lislaam daa musta xam loolu far bu yëkkateeb atteem boroom xam-xam yi usul yépp dañ ne la bépp atteeb sharia bu jóg góor ak jigéen xamal ni ñoo ko bokk li feeg dara ñëwul ñu ne laa lii ko jigéen ñi dong nga ko moom wala dara ñëw ñu ne la lii góor ñi rekk ko moom kon kon kon divergence boobu yi nga xam ne moom la ñu baree bari di di jéem a indi ci diggante góor ak jigéen ñu jàpp naan góor fii lay jaar jigéen fee lay jaar jotuwuñ dara góor ak jigéen dañoo mel ne ñaari dàll ñaari dàll kenn ku ci ne am na su rôle boo xam ne moom nga gën a man boo xam ne war su koo jaawale waris ko jaawale jamono yoo jëlee sa dallu ndeyjoor def ko ci sa tànku càmmoñ tànku càmmoñ bi nga def ko ci bu ndeyjoor bi génn di dox koo jëkk a li nga sol lu rafet rafet dana ne ah waa ji de xam naa ne yaram wi rek a neexut waaye li mu sol rafet na kon kenn ku ci ne am na sorul boo xam ne nag loola ngay mën dëgg-dëgg kon jàkka ubbil na buntam góor ubbil na ko itam jigéen loolu nag naka jekk moo ma sa am ci dunduk yonent bi dunduk saxaaba yi noonu loolu la jàkk ma sa xam ba fii nu toll am na ay méthodes yi jàng leen yu bare bari yoo xam ne boroom xam yi noonu lañ doon tëree di jàngale noonu ci biir jàkk yi waaye jaadu na rek nu wax ne njàngum jàkk li tax mu ëpp solo gën a jege société bi mooy ay mbir la mbir mi ci jëkk moo di qadaasatul makaan sell gi nga xam ne béréb bi da ko sell yeneen jàngukaay yi ci des amuñu ko fooy jàngi foo xam ne da ngaa yëg ne bala ngaa dem da war a jàpp jàpp ba set boo dikkee da war a julli ñaari rakka door a toog déglu kooku wax dëgg yàlla bokkut ak yeneen jàngukaay yi ñaareel bi xuluusu niyaat gaaliban xaytu la tatawafaru li hada naw min attaalim kii jóg di dem di jàngi ci jàkka lu gën a bari amut lu muy xemmem loo xam ne danaa amaana su ma jàngee lii bu ëllëgee danaa am lii danaa def naa am xalaati àdduna taxu koo jóg dafa jub gëm ne dafay jaamu ji yàlla su ko defee ne xéewal gëm cay amee adduna man caa baaxee ëllëg ak àllaaxiraam kooku xéewal gu ko borom bi tabaraka wa taala defal la waaye fekk na loolu taxu ko woon a jóg ñetteel bi istiqbaalu jamii sharaixi almujtama min alrijali walnisaai walumali walmuwasafin jàkka béréb la boo xam ne ñépp fay jàng si école boo dem bu nekk am na ñu ñu ko jagleel ñoo xam ne ñu dul ñoo ñooñu mënuñu fee jàng léeg-léeg sax dañu lay wax ne âge bi boo fa xasee am yow boo fa xasee àgg mënatoo jàng ci école bi waaye ne yàq mooy école bi nga xam ne ñëpp lañ ko ubbil góor day ñëw jigéen ñëw mag ñëw ndaw ñëw fonctionnaire bi day liggéey ba wàcc ñëw toog kenn ku nekk ak sab liggéey mën ngaa ñëw ci jàkka ji continuer sam jàng te du la wàññi dara kon loolu yeneen béréb bi jàngukaay yi meluñu noonu kon kooku moo tax dafa dafa am euh, rapport direct digganteem ak ak bi ñeenteel bi tawafuru lmuruna fi ixtiyaari al awqaati al munasiba lil mustahdafin jàpp ndal gi nga xam ne moo am ci njàngum jàkka ah léegi kat mbokk yi danoo am bind boo xam ne noo koy bëgg a ubbi ci jàkka ji di fi jàngale fiq ah bu ustaz Ismail dem ñëwee wax leen lu mel noonu ñu ne ko ah waaw ban heure la mu ne seet leen rek yéen heure ba gën a baax ci yéen heure bi gën a baax ci yéen seet leen ko ñu defal leen dars bi waxtu loolu wax dëgg yàlla yeneen jàngukaay yi amuñu ak yombal gu mel noonu kon dañuy xool nit ña niñ ko bëggee suñ liggéeyee ba wàcc ba ñëw seen kër ba sangu ba def seen yëpp julli timis ñëw toog nag di xaar julli gee ustaas ba defal leen dars bi foofu kon yombaay boobu moo tax jàkka suñ ko dundalee ni muy àggee ci xolu société bi ni muy àggee ci nit ñi amul beneen jàngukaay boo xam ne noonu lay mel beneen bi ca des mooy yomb gi nga xam ne pour pour pour bokk ci élèves yi jàkka ji ni mu yombee amul ay formalité dugg fii génn fi dafa ne ab jullit nga dangay ngay julli ci jàkka ji sañ ngaa toog déglu mu jeex amul ay formalité duñ ne la ana sa carte d'identité ana sa lii ana sa nangam yooyu amu ci jullit nga daal boo xam ne julli nga ci jàkka ji sañ ngaa toog jëriñu ci xam-xam bi nga xam ne dañ koy tasaare fi jàkka ji kon loolu ay jeexit la yoo xam ne su fekkee ne njàngum jàkka dundalaat nañ ko amul kenn kuy mucc ci njàng moomu ci société bi ndax jàkk ji dañ ko ubbil ñëpp ubbil nañ ko góor ñi ubbil ko jigéen ñi ubbil ko mag ubbil ko ndaw ka nekk ci liggéeyam sax nga xam ne day xëy huit ci suba ba huit ci ngoon teewul am na fa jàkk ja place boo xam ne bu ñëwee mën na faa julli mën na faa jàng kon kenn amatul lay kenn amul aw lay doon ab jullit ca sa kanam boroom nga ne dama amul woon waxtu wu man mën a jànge li ko waral mooy lan moo di su fekkee ne jàkka ja mel na na jàkka war a mel kon daal kon soo bëggee nit ku mat nit wutal jàkka ju mat jàkka jeexit yi nga xam ne moom la jàkka di def ci éducation atharul masjid ak tarbawiya atharul masjid ak tarbawiya impact yi nga xam ne jàkka daf ko def daf ko am ci wàllu éducation wàllu yar moom booy jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci doxalinam day mel ne jàkka bérébu yarukaay kese kese la boo tuut sax da ngay fàtte yeneen rôle yi ci des benn bis zaata yawmin jaahu sallallahu alayhi wa sallam ahadu shabab waqad talaacaba alsheytaanu bi aqli fa qaal ya rasul allah idan lii bizina benn bis benn xale bu góor dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu yoog moom ba àggal ne ko yow yonent yàlla bi dama bëgg rek nga may ma ma mooy yàlla ak jigéen njaaloo sax la ko tudde xanaa kooku sonn na te jàpp na ni ki ko ci war a mën a defal yombal kenn rek la mu yonent yàlla ci kaw suuf su ko ci yombalee mu yomb loolu bu doon ci suñ jamono yi tey jii ku ñëw fekk kilifa diine wala xalif général wala dara nga nuyoog moom ba àggal ne ko dama bëggoon a njaaloo bootul bala nga sa kàddoo daanu bootul ñi dóor la wala ñu toroxal la waaye loolu du yar loolu bokkul ak yar déglul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim tontu ndaw soosu waa mu ñëw ba ak fa danaa xatta jalasa bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu jege si ba toog fi kanamam fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam atuxibuhu li ummik qaala laa qaal wa kadalika annaasu laa yuxibuunahu li ummahaatihim mu ne ko ndax lii nga wax ne da nga koo bëgg a def ndax bëggal nga ko sa yaay mu ne déedéet mu ne ko ah nit ñeet bëggaluñ ko seeni yaay de ah xaaj bu mag daal di jàll ci jigéen ñi ndax lu bari ci jigéen ñi ay yaay lañ ginnaaw nit ñi bëggaluñ ko seen yaay kon ñoo ak yow yam rek bëggaloo ko sa yaay yow itam beneen laaj atuxibuhu libnatik qaala la qaala wa kadalika annaasu la yuxibunahu li banatihim ndax bëggal nga ko sa doom ji jigéen soo demoon ba am doom ji jigéen mu ne ko déedéet mu ne ko ah nit ñi it bëggaluñ ko seen doom yu jigéen de kon xaaj bu mag jàllati ci ji ci jigéen ñi boo xam ne bunt bu ubbikuwul foofa mu ne ko atuxibuhu li uxtik qaala la qaal wa kadalika annaasu la yuxibuunahu li axawatihim ndax bëggal nga ko sëb jigéen maanaam sëb sœur mu ne déedéet mu ne ko nit ñeetam bëggaluñ ko seeni sœur ñoom itam atuxibuhu li amatik qaala laa qaal wa kadalika annaasu laa yuxibuunahu li ammatihim ndax bëggal nga ko sa bàjjan mu ne déedéet mu ne ko nit ñi day bëggaluñ ko seeni bàjjan ñoom itam a tuxibuhu li xaalatik qaala laa qaala wa kadalika annaasu laa yuxibuunahu li xaalatihim ndax bëggal nga ko sa tante mu ne déedéet mu ne ko nit ñi bëggaluñ ko seeni tante ñoom itam xoolal yonente bi alayhi salatu wasalam fi mu jaar ak waa ji noppeegul sax waaye lim doon bëgg mu nekk ci xol bi yonente bi alayhi salatu wasalaam fajewu ko ne ko attem njaaloo di mooy dafa xaraam te lu xaraam boo ci saxee bu yàggee da ngay dem sa wara wala sa iman day dem wala mu bàyyi nit ñi jóg dal ci kawam dóor ko wala ñu toroxal ko waaye am xelam la jëfandikoo laaj na ko mboolem laaj yooyu yi ma wax nga xam ne bu sottee waa ji day xam ne jigéen ñi moom ku ci dul yaay faw nga doon doom ji jigéen wala nga doon ci nit bàjjan wala nga doon ci moom tànt te su fekkee ne moom mi toog bëggalu ko lennam ci ñooñ na xam ne nit ñeet kenn bëggalu ko sa loolu sa mbokk mu nga demee noonu ci moom kon kooku dal na koy convaincre ci wàllu ci wàllu xalaat summa qaal allahumma kaffir zanba wa tahhir qalba wa xassin farja yonente bi alei salatu salaam lu mu ca teg ñaanal ko yàlla yàlla na nga far bàkkaaram yàlla yàlla na nga laabal xolam yàlla yàlla na nga ko fekk ci mooy yàlla njaaloo xale bi jóg xol ba sedd guy yi amatul benn problème kon nii la jàkka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngalee ne membre yi ñëw ci biir jàkka ji yow imaam ji yow jàngalekat ba fa jàkka ji bàyyil sa xel ne nu nekk nit mën na la koo dikkee waaye bu la ko dikkee kenn ku nekk ak nañ koy saafara kon loolu mooy doxal yi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci faj kooku beneen a ngi benn bis ci jàkka ji lañ nekk benn kaw kaw dikk nuyoo toog kaw kaw nag buñ ko waxee ñu bari dañoo defe new ŋàññi la waaye kaw kaw mooy koo xam ne ku set wecc la li ñuy wax diplomatie dugg a génn fii amuñu loolu li nekk fi moom bu dee wax da koy wax bu dee jëf itam day def amul caaxaan moo tax su laxasee ne gëm na jeex na amatul weddi su gëmee gëm na bu wér amul caaxaan dafa dikk nuyoo yonent baa ngi toog di jàngale mbooloo mi wër ko mu daal di waaxu ba ca koñu jàkka ja daal di summi tubéyam di saw ci biir jàkka ji loolu bu doon tey nu ñuy def bu doon tey yaakaar naa ne euh, kenn du ko waxati teewul nag nit ña tàmbali yooxu yonente bi alayhi salatu wasalam ndànk ndànk ndànk la tasrimuhu mu ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu def li muy def ba àggal ñu bàyyi ko mu sow ba noppi yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo nit ne ko demal jël baagu ndox manam siwo bu ndox nga ñëw sotti ko fi mu doon sow ñuy jël siwo ndox ci kanam waa ji mu ñu sotti ko mu gis bi mu àggalee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lii néegu yàlla la julli ak tudd yàlla ak lu laab rek lañ fi mën a def waa ji jégglu jëw toog am na yeneen i wax yu bari yu mu wax sax yoo xam ne xadis bi gën naa gudd loolu waaye xoolal ni ko nit ñi bëggoon a faje mooy waa ji suñ ko yuuxu woon mu jóg saw bi dana tasaaroo ci biir jàkka ji pour seetal ko dana daal di jafe ci wàllu wér-gi-yaramam mën naa loru parce que commencé di saw bu pare dagg ko it kooku musiba la yonente bi alayhi salatu wasallam ni bàyyi leen ko mu continuer ci benn béréb bi mu def la muy def ba àggal bi mu àggalee waxu ko dara waaye dafa yónnee am ndox xam nga ne ki def lim def ba àggal gis ñi fa ndox di ci sotti xam na ne moom lim def njaaxum la kon yarin woowu yonente bi alayhi salatu wasalam moom la doon sóoboo ci biir jàkka ji di ko jàngal jullit yi itam ngir ñu mën koo yare ñi ñuy yar ci biir yeneen jàkka yi fi mashhadin axar عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني الناس بأبصارهم معاوية بن الحكم السلمي nee na benn bés dañuy julli ñu ngi ci biir julli gi de ma dégg ku tës li ma ne ko yarhamukallah loolu la xamoon li mu xamoon mooy bu déggee ko tisi dafay wax yar xamu ko la te yàggagul ci biir diine ji xam àtte yi xamul woon ne ku ne ci biir julli du wax bi ma ne yarxamukallah rek ma gis nit ñi niñ may xoole seeni bët fa ramani naasu bi absaarihim fa qultu waa sukla umaya ma sha'nukum tanzurun ilayya nee na ma leen waaw lu tax ngeen di ma xool mi ngi ci biir julli gi de lu ngeen may xoole lu ngeen may xoole fa jaalu yadribuuna bi aydihim ala afxaadihim nee na ñu tàmbali di fëgg seeni seeni pooj kenn ku ne di fëgg poojam ngir xam ne maa ngi def njaaxum fa lamma raaytuhum yusammituuna nii sakattu bi ma gisee ni ñoom ñii dañoo bëgg ma noppi nee na ma ne cel fa lamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi abi huwa wa ummi ma raaytu mualliman qablahu wala baadahu axsana taaliman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani qaal inna hadihi alsalata la yasluxu fiha sheyun min kalaami annas innama huwa altasbixu waltakbiru wa qiraatu alquran alayhi salaatu wasalaam nee na bi ma gisee nit ñi ñi naan ma ñi bëgg ma noppiloo nee na ma noppi ma ne cel mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëlmalee mu ne wallahi masumaa gis jàngalekat bu mel noonu ca la ko jiitu ak ci li ko mujj ne bi mu noppee gëdduma dóoruma saagawuma xasuma lan la ma wax lii julli la mënee su cee waxtaan lii julli la mënee su cee waxtaan julli moom sàbbaal rek ak kàbbar ak jàng alquran loolu moo ci nekk kon loolu daal nay leer fi yowmin axar waqaat xaadisatun jadida kaana liltarbiyati nabawiyati dawruha fi iqaafi alfaailin عند الحد الشرعي فلم يعودوا لمثله عن جابر قال قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yaxtub fa xaraja annaas wa baqiya isna ashara rajula fa nazalat wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuuka qaa'ima ngeen jéggal ma ci yenn kàddu yi ñu koy wax ci arab ndax dafa am mbokk yu fi nekk yoo xam ne euh, kàllaama wolof gi dégguñu ko te ay arab lañ moo tax léeg-léeg rek waaye du du lépp sax waaye dafa am tomb yoo xam ne suñ ko déggee danañ xam fi mu toll nu ànd ak ñoom rek di dem beneen xew-xew boo xam ne wane na njàng njàngaleenum jàkk ak formation nan lay demee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bisub ajjuma ma nga ca kaw minbar ba di xutba commerçant yi dañ daan dem Syrie di wuti marchandise di ñëw ki indi marchandise bi su ñëwee lu muy def dañuy yéene déclaré ca kaw ñu ne ah njëgg ma de ñëw na maanaam marchandise ma agsi na ba ko yéenekat ba di wax ca pénc ma fekk na yonente bi alayhi salaatu ma ngay xutba naka ko nit ñi dégg rek tasaaroo génn jàkka ji daw kenn ku ne seeti la nga soxla bëgg bëgg a jënd ñaar képp des fa ak bi sallallahu alayhi wa sallam ak na nit ña bare woon borom bi tabaraka wa taala wàcce ca alquran wa ida raaw tijaratan buñ am commerce aw lahwan wala ay caaxaan in faddu ilayha ñu tasaaroo jëm ca loola wa tarakuka qaa'ima ñu bàyyi la nga taxaw di xutba qul ma inda allahi xayrun min allahwi wa min altijara ñooñee def noonee dem nee leen waxul ne dóor leen wala saaga leen wala xas leen waaye na nga leen wax ne leen la nekk fa yàlla moo gën commerce moo gën po wallahu xayru raziqin te yàlla mooy kii dàq wërsëgale ci wërsëgalkat yi mooy ki dàq wërsëgale ci wërsëgalkat yi wallahi yàlla moo mën a wërsëgale mbokk yi toujours war nañuy fàttaliku bu baax a baax mbiru wërsëg wuti wërsëg lu baree baree bari ci lu nuy gaar ba nuy sàggane suñ diine wala nuy perte dara ci sun ngëm yàlla wala nuy jalgati sax alal ñàkk am tawakkul ci wërsëg moo ko waral ñàkk am tawakkul ci wërsëg danaa di wax ne mbokki jullit bu ñu doon xool wërsëg li nu yàlla di wërsëgale fi muy jaar ba agsi ci noonu suñ ko doon seetluwaat dañuy far wàkkiirlu rek dana dem fàggu ji waaye dana xam ne sunu wàll moom dana ñëw kenn ci asalafu saalex dañ koo laaj ñi nag waaw yow dañoo gis ku bari ak wax wakkiirlu ci yàlla nga ku dalum xel nga amooy noon amoo problème mu ne leen daal bokk na ci yooyu wax leen ay mbir benn ngi ci boo xam ne damaa xam ne sama wërsëg moom mënta tàbbi ci loxol keneen naka ma def loolu sama xel dal looloo dalal sama xel sama wërsëg mënta tàbbi ci loxol keneen danaa di wax mbokk yi ñi sant bi sëñ bi kebe la sant waaw ñi kebe suñ doon xalaat ci wàllu ceeb bii ñuy añee ceeb lu tasaaroo Sénégal la moom boo ci joxe misaal dana gaaw a leer xoola ceeb bi nga xam ne dañ koo béyee Pakistan mu ne ci tool wala ay tool yu bari sax ñu noppi yépp ñu jaxase ko ci benn hangar hangar yooyu ñu distribué ko ci àdduna fu nekk lii jëm Sénégal lii jëm Arabie Saoudite lii jëm fenn fu nekk am ca lu jëm ci Sénégal nekk ci benn bato ndekete bato boobee am na ci benn tibu ceeb boo xam ne sëñ kebe moo ko war a añee ci bis sàngam ma nga ca bato ba de ñuy séddale bato bi di distribuer yi saako jëm penk yi jëm sow yee nga maatam yee nga feneen ñi yóbbu ko ci grossiste bi nga xam ne client ab kebe foofu lay jënde ji ñi fab ceebam soosee dugal ko ci biirub saako grossiste bi jaay ko commerçant bi nga xam ne mooy détaillé mu jënd ko indi ko ci koñ bi jigéen ñépp xëy di jënd si yi peeseel ma fi peeseel ma fii waaye tibu sañ kabe bi kenn mënu ko yóbbu ci kër kër sañ sëñ faal wala sañ jóob léegi bi mu ñëwee soxnaam jënd ko tibam boobee nekk ci ñëw togg ko ñu teg ko ci ndab lu mat juróomi nit séqandoo ko kenn ku ne di tibb mu tibb tibam boobu ak fepp yi ca nekk yore ko su xalaatoon ne pepp yi ma yor fu ne jaar na fa foo xam ne waroon na faa mën a dem ci keneen te demul ci keneen ba dugg ci sama loxo bi ma jël ko lekk ko kon dana gëm ne amul benn xeetu wërsëg boo xam ne mën naa jóg jëm si ci yow keneen déwéyee ko ba mën a dem ci keneen mbirum wërsëg lépp nag noon la lépp noonu la fi mu boo demee daal yu rafet yi macha allah yu ustaas sol boo demee ku ne waxaale na ko même daataan agsi ci moom léeg-léeg nit waxaale ba mu yàgg mu ne ah, yii daal moom defe naa ne am na lu ci kii waaye fekk dara nekku ca da koo moomut rek daa agsee bu bu agsee rek mu jënd bu agsee ci borom rek mu jënd ko sol ko kenn mënu ci dara kon mbirum wërsëg mbokk jullit noonu moo tax wallahu xayru raziqin nga xool nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xissa boobu biñ noppee yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn riwaaya boo xam ne def ne leen kon fukk ak ñaar yooyu fa des protégé nañ xeet wépp nee na leen su ñëpp dawoon dem ca commerce ba kenn des bi lu dul man mi xutba dong xur wi dana jekki-jekki doon sawara maanaam Madina ak li ci biiram kon ñooñu fa des aar nañ leen waaye li ngay jàng foofu moo di saxaaba yooyu nga xam ne ñoo defoon loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di xutba ñi bàyyi ko fa daw dem ngir commerce ñooñu ñoo dem ba borom bi tabaraka wa taala ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen day fi mu ne yéen a gën ci xeet wu mas a génn ci kaw suuf ñooñee ñoo dem ba borom bi tabaraka wa taala ne leen fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw nii ngeen gëme yéen ñii ñay ñëw ëllëg suñ melee ne yéen kon gindiku nañ waaw kañ doon commerce que commerce ñëwoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci minbar nga daw wàcc ko fa fan lañ jaar ak yow ba mujj alquran ñëw ne la yow yaa gën ci nit ñi jàpp daan foofu ay jaar-jaar la kon lii mooy njëlbeenu saxaaba yi waaye lii mooy seenu mujj seen diggante nag liggéey bu rëy fi liggéey boobu nag mooy liggéeyu yarkat bi waaye liggéey boobu mooy liggéeyu jàkka liggéey boobu mooy liggéeyu jàkk foofu la yonente bi alayhi salatu wasalam jaar di leen defar di leen defar di leen defar bañ jóge ci waxuma di daw di dem ci commerce waaye soxlaatuñ sax yooyu taxatu leen a jóg xam ne ni seen wërsëg day ñëw amatuñ problème yooyu li leen itteel mooy fan la ñuy jaar ba seen ëllëg ñu mën koo baaxal kon su fekkee ne daal bëgg nga nit ku mat nit indil jàkka ju mat jàkk buñ ñëwee nag ci asaarul masjid al ijtimaaiya maanaam impact yi nga xam ne nag jàkka daf koy indi ci wàllu social euh, day mujj yi dangay fàtte sax yiñ doon wax yi weesu yëpp day mel ne jàkka daal am na leneen lu taxoon ñi tabax ko faf lu dul di julli ak di jàngale ak di xutba bokk na ci yooyu moo di jàkka dafa mel ne benn maison la pour sécurité sociale am na rôle bu mag bu jàkka doon def ci wàllu sécurité sociale ci aar nit ñi ak dimbali leen seen alal ak seeni nekkuwaay ak fu ñuy wàcc ak yooyu abdullah ibn omar ibn alxataab radiallahu taala anhuma kaana yanaamu fi masjidi rasulillahi sal allahu alayhi waalihi wa sallam wa huwa shaabun azab la ahla lahu xoola xale bu góor boo xam ne kër papaam dafa xat Abdullah ibn Omar doomi Omar ibn Xataab la kër papam xat na ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul fu mu fanaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox ko ndigal muy fanaan ci jàkka ji xoolal loolu kon kooku daf lay jox benn kii ne même ñi ñàkk fuñ nekk sax ba amatuñ fuñ tëdd la doon yoon mooy dañ leen a war ubbil jàkka yi ñu fanaan ci maanaam ci biir société musulmane jaaduwul nit di fanaan ci mbedd su fekkee ne dundal nañ jàkk ci niñ ko war a dundale ñaareel bi am na benn jigéen boo xam ne sax gaa ab jaam la woon daf doon dund ak ay nit daf doon dund ak ay nit ba mu yàgg ñooñu goreel ko biñ ko libéré mu nekk ci seen biir ba mu yàgg benn bis ñu tuumaal ko ci ak càcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam seetal ko ci càcc googu mu wóor ceng ne moom sàccul dañ ko tuumaaloon ndekete du dëgg mu mer ne duutu dëkk ak ñooña daal di génn jóge foofa waaye nag bi mu génnee amatul fu jëm ndaw soosu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa digle ñi defal ko benn tànt benn tànt ci benn koñ ci koñu jàkka ji mu dëkk foofa bu xëy mu ñëw fanaan ci tàntam ci biir jàkka ji kon loolu lu rëy rëy rëy la bokk na ci nag misaal mi gën a wér te gën a rëy ci yooyu mooy ñi doon tuddee ahlu suuf yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee ñëw màkka lim mu a def moo di seexale muhaajiroon yi ak lansaar yi maanaam waa madina ak waa màkka ñi ñëw ku agsi ci waa màkka daf lay wax ne yow sab seex mooy diw sàngam ci waa màddina kooku da ngay dem dëkk këram noonu la leen séddale bañ jeex ba mu yàgg kër yi ci Madina genn gu ci ne am na gan ñu fa dëkk ba pare nag teewul nit ñi continuer di gàddaay nag di ñëw màkk ñoo ñee doon ñëw te amatuñ fi ñu dëkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf leen doon jël di leen dëkkal ci jàkka ñu tudde leen ahlu suffa abu hurayra kenn la woon si ñoom mi ngi doon wax ne am na jenn jamono ma gis soixante-dix personnes yoo xam ne jaar nañ ci biir jàkka ji ci ahlu suffa waxul ne ñoom ñëpp dajaloo nañ fi dëkk fi benn yoon parce que loolu bari na waaye dañ doon def ku fa dëkk nag doo toog nag croché say loxo maanaam ñoom bu nit masaan agsi yëpp ak sa ñàkk ñu dimbali la dugal la fi béréb nga dal fa ñu jox los dara nga mën a am looy dunde duñ ko defee ni ko ñu bari di defe tey parce que ñu bari bu yorul dara amoo liggéey gis ko la ne ah <coughs> wax nga ñëw ci kër gi ma ma jox la benn néeg euh, dal lay jox tuuti ginnaaw yaa ngi am néeg di añ di reer lu bari ci nit ñi duutuñu xalaat ci ne foofu dañ faa war a jógee ci day mel ni fii rek nga jëm si woon ñoom yoruñu woon xalaat boobu dañoo gëm ne ànd ak nit ñi dañ leen a fat dañoo war a liggéey pour wuti leneen ba bu ëllëgee ñuy fat keneen moo tax soixante-dix personnes yooyu fa doon nekk ku ci agsi ñi dalal la fi ay fan ngay am daal di liggéey am dara dem wuti kër génn jàkka ji moo tax juróom-ñaar fukki nit jaar nañ ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne ñàkk leen fa indi woon waaye nag saxuñu fa ku fa ñëw ba am dara da dem sa yoon kon kooku lu mat a bàyyi xel la ba tey ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la daan teeroo délégation yi doon ñëw léeg-léeg sax mu dalal leen fi duñ fàtte euh, délégation bi nga xam ne ñoom ñoo doon bani tamim ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dalal leen ci biir jàkka ay kaw kaw la woon nag ñoom itam ndax dañoo dal yonente bi sallallahu alayhi buñ ko soxlaa en kilifa gu toll ni yonente bi alayhi salatu wasalaam foofa ci jàkka ja lañu doon toog di ko woo Muhammad di ko joor waaw borom bi tabaraka wa taala ne inna alladina yunaadunaka min warai alxujurati aktharuhum la yaqiluun bàyyi leen rek ñii toog fële di la joor di la woo ca kaw li ëpp ci ñoom seeni xel rek a toll foofu li ëpp ci ñoom seeni xel a toll foofu waaye nag ñoom itam ci ni ma ko waxee woon ci li weesu rek loolu lépp début bi lay doon ak tàmbali bi waaye ku mu ci jàppanteel ci jàkka ji ak yar bi ba noppi da ngay soreeg mel noonu lool lool lool lool Euh, Saad ibn Abi euh, Saad ibn Muas duñ fàtte ne moom itam ci biir jàkka jëfal ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam dalaloon wala wafdu bani Saad sax la ñuy wax euh, ñi nga xam ne Dammaam ibnu Saalaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jàkka ja la leen recevoir woon dalal leen fa ñi jóge woon Kinda nekk noonu ñoom itam matoon nañ quatre-vingts personnes mais ñi ci ëpp ci biir jàkka ja lañ daloon ke leen woon mooy al Ashas ibnu Qays Euh, délégation bi jógewoon woon ab xayma tam tant lañ ñu leen defaloon ci biir jàkka ja déeru fan yi nga xam ne am nañ ko Madina kon kooku def lay won ne jàkka daal wax dëgg doonul ab jàmbur ci société bi te dem nañ sax ba ñi nga xam ne dañu doon xeex ci jihaad fi sabilillah ba blessé wala yu mel noonu suñ leen di faj dañ leen wutaloon benn xayma boo xam ne ñee leen di faj di dàmp ak di gàjjaka def yu mel noonu ci biir jàkka ji lañ ko doon defee kooku dafa mel na demoon na ba mooy dispensaire bi mooy hôpital bi lépp ci biir jàkka ji la woon qissatu Saad ibn Muaz euh, kenn ku nekk xam na ne euh, bi nga xamee ne blessé nañ ko ci xandak yonente bi alayhi salaatu salaam ci biir jàkka ji la la ko tegoon ñu koy soigné di ko faj ba foofu la faatoo ci biir jàkka ji radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci biir jàkka ji foofu la daan toog fi la daan jàngalee la daan attee nga nekkoon sax tribunal bi fi la daan yéwee na le diggante nit ñi li am ci seen diggante ci ay xusumaat ay xuloo ay ay jaxasoo ay ñàkk ay féewaloo foofu la daan defaree seen diggante kon ma ne jàkka jàkka wax dëgg yàlla war naa xoolaat rôle bi nga xam ne am na ko ci société bi nun fan lan toll wax dëgg yàlla sun jamono ji jàkka waroon naa mën a dem ba lii daje ci tribunaux yi ci ay ay dossiers yoo xam ne kenn xamul nu mu toll jàkk mën na koo néewal bis nekk tey luy loolu mooy nañ jox rek imaamu jàkk yi nga xam ne mat nañ doon nañ lañ doon jàkk yaat doon lañ war a doon ñi jox leen ak jàpp ndal goo xam ne ci ci autorités yi lay jóge ne ñépp ñu xuloo ci koñ bi wala ñu am problème bala ñoo dem tribunal nañ jaar ca jàkka ja ba noppi wóor na ma ne suñ defee loolu bala ñoo jóge ci jàkka ja danañ danañ yewenal seen diggante dana baax duñ dem ci tribunal du tribunal bu mukk kon jàkk mën nañ koo dundal ci wet googu mu liggéey fi liggéey boo xam ne am solo bu mat a bàyyi xel la jàkka problème mu pauvreté ñàkk faj na ko ci anam yoo xam ne yu jéggi dayo la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis euh, an anas ibni malik radiallahu anhu qaal utiya annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi maalin min al bahrain fa qaal unsuruuhu fi lmasjid wa kaana akthara maalin utiya bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja rasulullahi alayhi salatu wasalaam ila alsalati lam yaltafit ilayhi falamma qada alsalata jaa fa jalasa ilayhi fama kaana yara axadan illa actaa fama qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa samma minha dirham yonente bi alayhi salatu wasalaam pour wane rek jàkka rôle bu mag bi nga xam ne daf ko doon participer ci xeex pauvreté bi nga xam ne moo nekk ci biir askan wi benn bis dafa am alal ju bari joo xam ne dafa jéggi dayo xaalis bu jógee béréb bu ñuy wax Bahrayn xam nga nit ñi dañuy dajale seeni asaka dajale seen boole ba mu doon alal ñu yónnee yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko ko yónnee nu def dane yóbbu leen ko ci jàkka ja yóbbu leen ko ci jàkka ja ñu yóbbu alal ji ci jàkka ja teg ko foofa di ko garde yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk julli ba sëlmal ne ana alal ji ñu indi ko jóog ko ci kanam mu doon jóogub xaalis muy woo nit ñi benn par benn ku mu woo nga ñëw mu jël jox la nga yóbbu ku woo nga ñëw mu jox la nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi muy jóg ab dërëm desu fa lépp daf ko joxe ba mu jeex tàkk kon li ñëw ci biir société bi léeg-léeg léeg-léeg dafay laaj nit ñi situation bi muy dund bi ñuy dund ñu jox leen xaalis maanaam ñu jox leen xaalis ñu dem liggéey da di nag nguur moom li ko nit ñu bare bari di séentoo defe ne nguur dafa war a toog di séddale xaalis maanaam déedéet du loolu nguur dafa war a xool war dafa war a xool problème yi nga xam ne moom la société bi di dund mu régler ko ci anam goo xam ne anam goo xam ne dana réglé wu maanaam nit ñi ku leen xam tey ak ni ñuy dund xam ne jël xaalis jox leen réglé wut seen problème waaye mën ngaa amal loo xam ne bu ñu ñëwee di fa liggéey amal loo xam ne bu ñu ñëwee di fa liggéey xam ni liggéey mettee ñi amee ko ci lañ cay amee nga xam ne dañoo gëm ne lii seen liggéey lañ ko jëlee loolu duñ ko duñ ko yàq waaye jël xaalis jox nit lu ëpp ci nit moo leen ko defee duñ liggéey borom projet yeeg ñuy dugg di génn yu mel ñu bari léeg-léeg xaalis dugg ci seen loxo mais dara parce que liggéeyuñ ko. xaalis bi nga xamul nu mu dikkee doo xam nu mu demee waaye nag bi nga xam nu mu dikkee ah, kooku danga xam nu muy demee de kon kooku lu mat a bàyyi xel la foofu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam pour mu seddale xaalis ci yu mel noonu rek lay doon dem ba xam ne nit ñi àgg nañ ci amatuñ luñ lekk ku amatul lu mu lekk moom boo ko joxee sa tëlta fooy tëlta dem di fooy lu mu lekk la am la soxla boo ko ko joxee kooku day dem lekk <coughs> ci xadisu jarir ibnu abdullah nee na benn bis ay nit dañoo dugg si ci jàkka ji ñu bokk ci benn famille bu ñuy wax mudar nee na ñooñu daal biñ duggee ci jàkka ji boo leen xoolee rek xam ne ñi ñàkk gu métte métte métti lañuy ñuy dund te yonente bi alayhi salatu wasalaam yërmandeem ci xeet yu dafa jéggi dayoo bi mu gisee ñooñu kanam gi dafa lëndëm mu am lu ko naqari ndax niñ ñàkkee ndax niñ ñàkk yërmande naka ñu julli ba sëlmal mu daal di xutba soññ jullit yi ne lu waaye man ci loo dimbale ñii dimbale leen ko nit ñi commencé di dajale di dajale bilaa lal mbalaanam ñenn ñi sax doo dem ci kër ga jëli lañ fa amoon dikk indi teg yonente bi alayhi salaatu wasallam xool ba gis alal jooju ni mu toll ñu ne dafa dal di bég ba xar kanam bi boo ko xoolee dafay mel ne or ndax bëgg ci jullit yooyu nga xam dañoo amoon problème ñu regle ko kon mbir yooyu yépp mi ngi doon xewe fan ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji kon daal jàkka problème yu bari yoo xam ne noo koy dund tey jullit bi xam jàkka ak li mu war a def ci jàkka ak fi imaamu jàkka tollu ciw xeet suñ ko fa tolloolee dellu fa ja delloo fa jàkka moom dana ko wóor ne li ëpp ci problème yi tey yi mën naa saafarawu waaye nag ñàkk jàkka ñàkk jàkka bokk na ci li nu jural li nuy dund jàkka yi bari na lool de tabax nañ fu nekk jàkkaa nga fa nit ñi it ñu ngi julli nag waaye nag jàkka ja tax ñuy wax day day day am day joteeg société bi dara day jote ak société bi dara jàkka ju mel noonu moo tax ñuy wax ñu ñëw ci impact bu mujj bi mooy ci wàllu euh, li ñuy tudde opinion publique rayul am jegeele ko ci xeet wi ba juuyoo yeeg werante yeeg xuloo yeeg wonante gannaaw yi mën a wàññiku loolu li ci jàkk mën a def leneen mënu ko cee def imaami jàkka yi nga xam ne boo doon xalaat tey ci ndakaaru ñaata jàkka ñoo fi nekk day yu ñuy jullee ajjuma kenn xamul nu mu toll imaamu jàkka ji ajjuma ji bu ñëwee di xutbaal nit ñi mi ngi wax ak ñoom ci mbir moo xam ne am na ci yu xew yoo xam ne jullit bi dafa soxla lool moom diineem ji mu gëm mu xam nan la war a def ci xew-xew bii ma ne su fekkoon ne imaam ya boroomi xam-xam lañ doomi seen jamono lañ maanaam xam nañ la ñuy dund itam lu mu doon jamono jiñ tollool ñu xam ko xam seen diine am itam ak jote gu dox seen diggante ñoom ci seen bopp ba problème bu ñu yëg ne war nañ koo saafara ñu saafaraandoo ko ci seen saafara bu mbir ne tekk moo xam ne soxla nañoo xam nu ñuy def ñépp gag nañ bu boobaa jullit yi dañoo war a am yëg-yëgu ne nañ xaar ba ajjuma bu ajjuma am solution su fekkoon ne imaam ya seen yëg-yëg ba ak seen xam-xam ba àgg na ci problème yu mel noonu saabu amee mën nañ koo saafaraal askan wi te wóor na leen ne askan wi yépp dañuy julli si ajuma suñ taxawee ba wax ak ñoom ba jóge fa ña taxawoon ca bunt ba di werante kii naan ko nii la kii ne nii la bu génnee dañuy def gariif ñu ne ah diine ja kat ndekete lii la ci wax su boobaa seen xol day seen xel day dal waaye seen xol itam dafay sedd ñaar yooyu mooy daje ci ñoom rôle boobu jàkk mën na ko def ci société bi ba juuyoo gi ak werante bi ak xuloo bi ñi yëg ne ñoom ñëpp dañ ànd yëg ne jàkk mooy institution bi gën a kat jullit danañ gëm ne imaam personnalité bi nga xam ne moo tiim ñëpp imaam ci taarixul islam moo moo féete ñëpp kaw waaye nag wax dëgg yàlla bu ñu demee ba jëmmi jamono noonu nu créé suñu yëfi bopp yoo xam ne ñoo di doyadal imaam jàppe ku mu doon koo xam ne ci suuf la nekk yëkkati ñeneen teg leen ci seen kaw loolu mooy kañ mooy bin doyadalee jàkka yëkkati yeneen teg ko ci kaw jàkka booba lañ yëkkati ñeneen teg leen ci kaw imaam nit ki mën naa taxaw di fooyee imaam ba ci média yi sax kenn du wax dara waaye cey ñin yëkkatil suñ bopp ba teg leen ci kaw ku leen fooyee cey ku leen fooyee kon daal ñi yàlla yëkkati mënees na leen woyofal mënees na leen suufeel waaye ñi nit ñi yëkkati seen bopp moom ku leen suuf nit ñi fabal seen bopp seen yem loolu nag feebar la feebar la suñ dee waxante noonu ci suñ bopp danoo war a waxante dëgg yu leer naañ ñi lu yëg ne bépp tawat boo xam ne bu am ci askan wi la des ko war a faj suñ fekkee lu war a nekk suuf ñu yóbbu ko ca kaw loola nañ ko delloo ci suuf li nekk ci suuf te waroon a nekk ci kaw nañ xool na ñuy def ba delloowaat ko ci kaw loolu mooy mooy li jaadu nu mujje kon suñ tomb bi nga xam ne mooy mumaarasatun wa mafahim yajibu an tusaxa am na ay mbir yoo xam ne noo koy dund ci suñ biir jàkk yi waaye yooyu ajana defaraat bi may tàmbalee moo di arriyaa fi binaa il jàkka ñu yëg ne ki koy tabax yàlla dong dong dong moo war a tax mu di ko tabax ki cay dem di ca julli ji yàlla dong moo tax mu di ci julli ji waaye jamono yi ñu ci dugalee leneen nañ xam ne bu boobaa jàkka duutu def la ko taxoon a jóg su demee bañ ne lii mooy jàkkay kuréel sàngam lële mooy jàkkay kuréel sàngam lee mooy jàkkay kuréel sàngam ñi gëm ne kuréel ba ca des waru faa mën a am place su boobaa jàkk def duutu mën a def la ko taxoon a jóg parce que jàkka ngir mu man a def li ko tax a jóg dañ koy ubbil askan wi ñëpp moom ko jullit nga yaa moom jàkka gi ci nga ni nga fi sañ a jullee boo dee boroom xam-xam noonu nga fi sañ a jàngalee su fekkee ne jaare nga ko ci yoon wi nga ko war a jaare moo xam nag ak foo mën a bokk jàkka noonu la kon yéen nit ña moomal seen bopp mooy la nekk ci seeni kër waaye ginnaaw fas na tudd jàkka wa anna al masajida lillah ginnaaw tudd na jàkka rek jàkka moom yàllaa ko moom dafa dem ba àgg ci sax imaam bu ñu tuddee Zarkashi dafa tuxale ci ku ñuy wax Ibnul Jawzi mu ne man bana masjidan fa kataba smahu ale fa huwa baidun min al ixlaas nee ku tabax jàkka ba noppi bind ci sawtu nee na kooko sori na sori na sellal kooko sellalut kon sellal ci mbirum tabax jàkk mooy tomb bi njëkk te war nañ koo bàyyi xel jàkka ji suy sellee doon néegub yàlla yàlla kese tax dana mën a def li ko taxoon a jóg ñaareel bi iltisaamu alxutbati bil arabiya fi lbuldaani nnaatiqi ahluha bi gayriha bokk na ci tomb yi nga xam ne moom it lu aaje defaraat la mooy jàpp ne xutbab ajjuma ci arab képp-képp la war a nekk dëgg la askanu lislaam ba jullit yi di xam seen diine di jàng arab mu nekk seen langue nationale ak fu ñu mën a nekk ci biir réewi lislaam yi booba imaam yi dañ doon ba ci arab ndax boo waxee nit ñi xam li nga doon wax waaye nag ginnaaw lislaam daa doon diine joo xam ne daa universel yëmut ci benn ruq askan yépp dañ caa bokk te nag ñépp mënuñoo ànd jàng arab ba di ko làkk loolu ma mënta nekk te imaam ji dafa war a wax ak nit ñi kon wax dëgg yàlla mënee suta mënee suta jàpp ne imaam mën naa ñëw fekk nit ñoo xam ne dégguñu arab mu taxaw ci seen kanam di leen discours ci arab warul man a nekk suñ ko defee ba àggal nit ñi dañuy tasaaroo dem kenn du xam li mu doon wax su ko defee efficacité bi ñu doon séentu du am maanaam yar bi ñu doon séentu ne jàkka da ko war a yar nit ñi du ko yar parce que seet imaginel su fekkoon ne da ngaa jël benn école boo xam ne dangaa ñëw ni nit ñi da leen di dajale bis bu nekk nga conférence leen wala nga defal leen thème de formation dajale leen ñoom ñëpp ñu bokk toog euh, kee aw làkkam mooy wolof kee pulaar lay làkk kee séeréer lay làkk kee leneen lay làkk saa ak agsee rek ubbi sa saw këyit daal di làkk anglais yow ba mu jeex nga daal di ubaat dem di ko def ba sa sa ñaari weer yi nga ko façon yéenee def mat waaw ñooñu ndax ndax ndax ndax formation bi nga leen doon defal dana sotti du sotti kon xutba mooy wax ak nit ñi su fekkee ne li nga leen di wax du làkk wuñ xam duñ xam li ngay wax loolu lu mat a bàyyee xel la ci xutba ajjuma dadi nag liñ fi doon noonu ba leen ci boroom xam-xam fiq yi sax di ko wax ne xutba daa war a nekk arab ñooñu liñ doon xalaat mooy ku déggul arab amut dañu jàpp ne jullit moom faaw day dégg araab foofu lañ toll woon waaye nag jamono day dox te l'islam day tasaaroo dem na ba ay jullit am yu déggul arab réalité boobu duñ ko saafara dañ koy bàyyi noonu rek ne kon daal faqih ba waxoon ne ca téeréem daal ne euh, kenn mënta xutba ci lu dul arab kon dañuy toog rek di xutba arab mënul nekk li nekk ci téere fiq yi lépp mën na ko jëfe yoo xam ne sax dañ ko war a far continuer amatul ka ko waxoon bu doon tey da koy dindi boo demee ci risaala am na fi ñuy wax ne wa yukrahu safaru ila biladi sudan sib nañ ko tukki ci réew yi nit ñi ñuul ñi waaw loolu dana fi des ba léegi ah loolu dañuy continuer di ko wéyal waaye ka ko doon wax daa am lu taxoon ma di ko booba lislaam dugg fa woon lislaam dugg fa woon te ñu jàpp ne ku fa tukki mën nga fa jëli problème diine ñu nekkoon kon sib nañ ko fa tukki waaye nag bu ñu demee ba nit ñu ñuul ñu gën la sax far ba watuut yow ci wàllu diine su boobaa nag ma des na faa tukki kon loolu ab junj la ci ne du caagi ne lu nekk ci téereb fiq rek ñu ne faqih ba wax na ko loolu dañ koy jëfe jamono yu nekk dañuy xool jamono jo la mu xutba des ko war a def ci làkk yi nga xam ne moom la nit ñi dégg ba léegi suñ jàkka yi am na ci jàkka yoo xam ne ma ba léegi waaye maa ngi fàttaliku région boo xam ne man dama faa nekkoon ay jamono imaam ja benn xutba bi mu yoroon di ko xutba bu gàtt la boo xam ne da ko daan xutba ci ci arab yàlla dogal na nag xutba bu leer la ko daan def lu bari ci imaam yi bu ñuy xutba doo xam sax li ñuy wax la am di waaye kooku moom da ko doon wax ci bu leer mujj na ñi fa mel ne man nun ñëpp mokkal nañ xutba bi moom ndax xam na li muy wax moom du mat cinq minutes mu jeex waaye saa bu ñëwee dana ko jàng ba mu jeex waaye li la ci yéem mooy xutba bi da koo tuxale ci téere téere bi xam naa ci jamono yi bi fi état ottoman yi nekkee muy dawlal osmaniya muy turkiye yi boo demee ba xutbay jeex xutba ba di jeex ñu ngi ciy ñaanal bu ñuy wax Abdul Hamid mooy ki fa mujjoon imaam ji bu ci àggee da koy jàng noona yi wax ni yàlla yàlla na nga dëgëral sultaan Abdul Hamid yàlla na nga dëgëral ab armeem yaa yi ñooña dem nañ bu yàgg nga continuer di leen ñaanal ah kooku da lay ne tomb la boo xam ne wax dëgg yàlla imaam yi war nañ ci bàyyi xel delluwaat gannaaw xoolaat bu baax a baax ci yëg ne eh, kuy xutba da ngay wax ak nit ñi loo xam ne ñu xam la beneen bi ci des yoo xam ne war nañ koo bàyyi xel moo di al xuluwu fi tafriq bayn al masjidi wal jaame léeg-léeg da dem ci dëkk gis ñoo xam ne ñii ñi seen yor nañ jàkka ab village léeg-léeg lay doon jàkk joo xam ne village village la boo xam ne village bi dem na ba rëy jàkkaa ngi fi joo xam ne li fi mën a julli ci ay nit moom mat na téeméeri nit jëm kaw duñ julli ajjuma waaw lu tax du ngeen julli juma ñu ne lii jàkka la du juma jàkka du jumaa ah waaw luy luy loolu ñu ne biñ koy tabax dañ cee yéene woon jàkka yéene wuñ ci woon juma loolu loolu amut ci lislaam jàkka mooy jumaa jumaa mooy jàkka saa boo xamee ne nit ñi ajo aajowoo nañ ne fii xutba ajjuma soxla nañ ko fi lii nga tabaxoon bëkk démb tudde ko jàkka dara desatu lu dul nga ñëw rek xutba mu doon ajjuma mu doon jumaa waaye pour ne da ngaa war a sosaat nag beneen jumaa boo xam ne da koy construire yéene ci ne kii ajjuma lay doon moom loolu loolu moom lislaam xamu ko kenn mënu ko layal ci ci ci lislaam kooku lu mat a bàyyi xel la tax na béréb yu bari yoo xam ne mënoon nañ fay julli ajjuma julli wuñ fa ajjuma te fekk ña ak seen jàkka kooku njuumte la bokk na ci itam at tasaahul fi ixtiyaaril imaam imaam dafa yomb lool lool niñ koy tànne loolu ci li tax jàkk mënta def li ko taxoon a jóg ci la bokk léegi léeg ñu tànn imaam ci kaw ne bi ñuy tabax jàkka ji mu ëppoon lu mu ci participé ginnaaw joxe woon na lu bari kon mooy imaam ji léeg-léeg ñu tànn imaam ci ne moom daa yàgg ci koñ bi ñépp bi ñuy toxu si fi lañ ko fekkoon yooyu wax dëgg yàlla ay critères la yoo xam ne gisu ko tànne imaam imaam dafa am ay melokaan yu ko lislaam jox am ay man-man yu mu war a man ñu door koo tànn te li wér te wér mooy imaam bu ñu ko tànnee ba pare day daa war a continuer di former ay formation la la imaam yi war di am ay séminaire yoo xam ne dañ leen di former ñuy continuer di mën a def di mën a def seen liggéey parce que imaam yi suñ defee seen liggéey li ñuy servir société bi dafa bari li ñuy jariñ nit ñi ci wàllu éducation ci wàllu discipline ci wàllu xàmmee ak xam seen bopp ak xam seen diine loolu dafa bari moo tax ñoom des leen na war a jox itte ju rëy a rëy bokk na ci tomb yooyu al xuluwu fi ixtiyaaril imaam mooy léeg-léeg tànn gi dañ ci xóotal nag ba mu ëpp am na ñoo xam dañuy dem ban la ki dul gis mënut a jiite la ku dul gis mën naa jiite mu ñëw rek daal di nodd ba àggal ubbi rajo bi rek daal di dugal rek affaire bi rajo rajo jumaa ji fu waay toll rek di dégg mu afale nag bëgg koo fay xamatu fu mu koy fayee musique yi yàgg yooyu ñu naan xam nga James Brown xam mu continuer di kii di musique affaire yi continuer lu yàgg yàgga yàgg nga xam ne dafa ji moo xam na mu def ba arrêté ko waaye ci ëllëg si ñëpp ñëpp loolu lañ doon waxtaan yi ñu naan waaw musique bi nekkoon ci jàkk ji biig nangam nangam ñu xam nga dëgg-dëgg loolu lépp nag ci ci ubbil bunt bi ñëpp la maanaam noddkat bi ni ñu war a fonke imaam ji noonu la ñu war a fonke noddkat bi kenn ku ci ne dañ la war a xool nii niñ xoolee liggéeyukaay yi yow bi office société di jël ab secrétaire di jël ab comptable di jël nangam di jël nangam da nga cay ba tànn leen bañ man li nga leen di jox noonu la war a sonne ci jàkka ba tànn imaam joo xam ne bu wóor na leen ni kii imaam la noddukat boo xam ne xam nañ ni kii ab noddukat la gardien boo xam ne xam nañ ni kii ab gardien noonu la ñuy tànnee personnel bi nga xam ne ñooy nekk ci biir jàkk ba tey bokk na ci njuumte yi nga xam ne nag mi ngi fi te moom it aaja bàyyi xel lool lool lool ci kanam ndax ñu mën koo bàyyi mu di tabax jàkk ba noppi wëlbati ko soppi koy armeel l'islam dafa organiser léppam armeel l'islam wutal na ko place jàkk mu wutal ko place lenn lu ci nekk am luñ koy doyee kon suñ demee ba jël lenn li mu fekki moroom ji rek kooku njuumte la loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis yu tar yu tar yoo xam ne ku ko gis sax da tiit ci ku dugal ab xabru ci biir jàkka wala nga ñëw fab jàkka teg ko ci kaw ab xabru kon loolu ci njuumte yi nga xam ne yu mat a bàyyi xel la mat a wattandiku même borom xam-xam yi dañuy wax ne nit ki su tabaxoon jàkkaam yoo xam ne ci alalam la ko tabax ba noppi bind testament am ab dénkaaneem ne su ma faatoo nañ ma suul ci jàkka ji borom xam-xam fiq yi nee nañ wasiyatuhu batila maanaam boobu testament amut solo kenn du ko kenn du ko wéyal kenn du ko wéyal parce que jàkk palaasu leneen la armeel palaasu leneen la ñoom ñaar mun ñoo mun ñoo ànd bokk na ci itam yi nga xam ne yu mat a bàyyi xel la moo di takallufu jaali alqiblati ila ayni alkaaba la ila jihatiha pour pour Euh, def direction jàkka ji mu jublu kaaba gi kenn ku ne xam ne nit ñi dañuy jublu dañuy julli jublu kaaba gi bu dee fii ci Sénégal dañuy julli jublu penku waaye léeg-léeg nga gis nit ñi ñu tabax jàkk ba mu àggal ñu ni ji jàkk kenn mënu cee julli parce que euh, mihrab bi dafa mooy xibla loolu ak ëppal la ak xóotal ba ëpp yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax ma bayna al mashriqi wal maghribi qibla ma bayna al mashriqi wal maghribi qibla xadis boobu aajana dégg moo tax borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu wax yu bare bari pour expliquer ko waa Madina nan jàpp ne fii mooy penku xaw ma ndax fi ma toog nag wóoruma mooy penku mu waaye nan nan jàpp noonu ci saal bi daal ne penkoo ngi nii mooy ci sama gannaaw soow moo nekk na la ci seen gannaaw yéen sud muy ndeyjoor moo nekk nii noor muy càmmooñ moo nekk ne boo nekkee Madina ñoom dañuy julli jëm sidd ndeyjoor loolu leer na defe naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen xibla bi mooy diggante penku ak soow yow mi julli jublu sidd penku bi mooy diggante ndeyjoor mooy diggante sow ak penku kon penkoo ngi soowoo nga ne li ci diggante bi yépp xibla la noonu la leen ko jàngale kon ci xas sori madina côté boobu rek lañ la wax waaye waxuñu la ne na nga def direct ci kaaba ga parce que ginnaaw mënoo ko kooku jiixa lañ la wax maanaam côté bi ngay jublu waaye waxuñu ne nga jublu aynul kaaba ka nekk biir màkka nag kooku moom mënta jëm feneen fu dul ci kaaba gi moom la ki ne ci biir xaram bi kaaba gi képp la mën a jëm bu xasee nekk ci biir màkka affaire baa xaw a yaatu tuuti na jublu côté bi nga xam ne moo féeteeg jàkka ja su nekkee ci jëdda wala feneen na jublu fi féeteeg màkka su ñëwee ba ñëw fu mel ni nag na julli fa jëm penku nag rek maanaam bu doon ci noonu xadis boobu buñ koy appliqué dan naan xibla bi mooy diggante ndeyjoor ak càmmoñ diggante sud ak noor lépp pour ñun xibla la yow mi taxaw fee boo jullee jëm nii xibla la bu dee nii xibla la bu dee nee yooyu yëpp xibla la dafay yaatu loolu defe naa ne lu aaje lu aaje réglé lewaat la parce que gis naa man ay jàkka yuñ toj ci tabax ko ba àgg loolu dutigu toj ko ñu ne lan ñu ne affaire bi dafa dafa dafa mooy jàkk ji daa mooy xibla kooku ay njuumte la yoo xam ne ñu bàyyi xel la am na wax ju am solo fii joo xam ne su tuxale naa ko ci Ibn Abdul Bar muy expliquer hadis boobu waaye explication bi mooy li ma doon wax rek parce que dafa wax ne bu dee waa Yaman nañ koy féetewu ak bu dee waa Iraq nga xam ne ñooy penku Màkka nan lañ koy féete ak bu dee waa Madina ak bu dee ñu féete sowwu yépp nañ koy féetale kon daal ci gàttal wax dëgg yàlla am na lu bare bare bare lu ñu war a mën a wax ci ne warees na koo defal jàkka ngir mu mën a jouer rôle bi nga xam ne moo taxoon ñi di ko tabax lu baree baree bari loo xam ne warees na koo mën a defal imaam ngir mu war a mën a jóg ci li nga xam ne moom la askan wi di séentu ci moom yooyu yépp nag day ab liggéey boo xam ne faw ngir mu jëm kanam ñépp a ciy jàpp faw askan wi ci seen jëm bopp ñu jàpp ci faw autorités yi ci seen jëmmi bopp itam ñu jàpp ci noo ngi rafetlu bu baax a baax liggéey bi jóge ci Euh, ministère de la culture muy conférence yi nga xam ne ñi ngi koy def euh, di célébrer kii bi nga xam ne ci lañ nekk nii euh, lu ama am solo la ndax lu bare bari ci wàllu culture moom nit ñi buñ ko mosaan dégg weneen déggin lañ koy dégg mos na maa dégg mbokk moo xam ne mu ne dafa doon laaj doomam ne ko léegi ministère bi yor wàllu njàng mi mu ne ko kooku mooy mooy ñu yor école yi xale bu tuuti ya mu ne ko bu dee ki yor sport bi nag mu ne ko kooku moo yor football bi lenn loo ne day xool la ci gën a siiw rek nee na bi ne ko culture nag mu ne ko kooku ma yor yor tëgg beeg fecc bi xam nga <laughs> yooyu déggin euh, déggin yuñ miin lañ waaye nag lu mel nii bu dee am kooku dana raxas loolu ci xel yi ba tax ñu xam ne ah culture kët ndekete déggin wañ ko déggee du du tëgg ak fecc rek waaye nag ndekete jox nit ñi xam-xam yar leen éduquer leen ñu doon ay ay citoyens yoo xam ne ñu tekki dara lañ ñu am jom loolu mooy culture def leen ñi doon ay jullit yoo xam ne ñu xam seen diine la sax kooku ci seen biir liggéey ci la bokk li activité bu mel nii mooy delloo si loolu ci xeli nit ñi ba tax ñi xam dëgg-dëggu culture mooy lan noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dolli ñëpp tawfiq di nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi teew muy ki fi représenté ministère bi di nuyu ministre bi ci boppam di nuyu kilifa gi nga xam ne itam mooy njiitul euh, béréb bii nu nekk di nuyu ci liggéey bi di rafetlu itam teewaay bi ak déglu gi ndax wax dëgg yàlla teewaay bu mel nii moom dafay wane ne thème bi itteel na leen day wane itam ne mbokk yi def activité yu mel nii war nañ koo continuer ndaxte askan waa ngi nii comme que nii la leen ñoree yu mel nii wax dëgg yàlla war naa continuer doon ab liggéey boo xam ne euh, fenn fu nekk la askan wa gën a bëgg rek loola moom dañ leen ca war a fekk lii moom wax dëgg ak bëgg la teewaay bu am solo la ak déglu gu am solo la yàlla na nu borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullah mat na sëkk li nga xam ne moo taxoon ñu sos ko ah, dañoo waxoon ne bu conférence bi jeexee dama ko war a tënk français donc loolu laay def lu jiitu may ubbi liste pour ñi nga xam ne am na lu ñu bëgg a laaj wala lu ñu bëgg a dolli donc bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu sant yàlla subhaanahu wa mi ñu xewale ci ngëneelam dajawa bu mel nii ci turu barab bu tedd bu màgg bii ñu xam ci lislaam di jàkk yàlla jàppandalu ñi jàppandal ñi itam ku xam ne danañu mën a delloosil portaleeb jàkk na mu meloon ca ba ko lislaam di damoo ti bëgg itam mu wéy di mel noona danañu jéggulu amaan na ci suñu yéex teew waaye yii xew ci jamono moom moo ñu gàllankooroon benn mbokk bu wàññeeku ñu ko doon jële fële ci sétéo ngir war koo jébbal boromam ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko mbokk yi man sama kàddu man naa bañ a gudd waaye nag dama bëgg ñu romb fi ñu toll ci ni ñuy dégloo waxtaan yu ni mel te mooy waxtaan wi am na solo lool conférence bi de jekku na thème bi bu baax a baax jazaahullahu xeyran loolu saa yu amee nañ ko ñaan yàlla doole ko tawfiq waaye suñu jubluwaay ci ñëw war naa romb loola danañ neena loolit waajtaayu ki nga xam ne moo doon waajal waxtaan wi su fekkee ne meññet mam jur loolu dong la kon yi ñu dégg kenn ku nekk ci ñun dafa war a sasoo rawatina ñi nga xam ne dañoo jiite ay jàkk dañoo war a sasoo bu ñu fi jógee lépp li ñu dégg ci conférence bi mu dëppoo lañu daan doxee ci seeni jàkk ñu ne ah kii waxkat ñaax na ma ci sama doxin kon naa ci gën góor góorgóorlu lépp li nga xam ne seetlu naa ne manqué na ci sama jàkk ma jàpp ne kon mébét bi ñu doon wax ne su jàkka dellu woon ca na meloon kon man war naa cee bayu sas ngir delloo sama jàkk ca na jàkka meloon loolu mbokk yi amul weerante ne ñi dul elimaan yi dañ cee topp elimaan yi ndax ñoom dañu leen a jiite di leen wan kon lépp li nga xam ne jàkka doon na ko jëfee man awma ma weerante ne ñi war a leeral jiite jullit yi ci seeni barab su fekkee ne képp nañu seen bët ca warugal woowu nam mu waree gëm naa ne nit ñi danañ ci taxaw te buñ ci taxawee insha allah lu bare bare ci li société bi doon jooy danañ ci génn dama ciy joxe ñaari misaal rek yu xam ne yu concret la mu wér ñu ne nit ñi bañuñoo def ci yàlla nit ñi bañu ñoo sonn ngir am tiyaaba waaye ñaari yëf dafa am yu leen manqué benn bi mooy ku leen wax lu leer lu xam ne dafa leen di garantil tiyaabo ju xam ne kay yeyoo garanti tiyaabo moo leen ko wax te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax kat képp ku ñu garantil tiyaabo ne ku def ndàngam dana ci am nangam ak nangam te loola jëlewu ko ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi mu ngi garanti lu mu yeeyoowu la garanti amma misaal bu njëkk bi mbokk yi euh, danañu gis weeru koor am jullit yu sonn lool ci lu ñu lekk ñenn ci ñun di xaar ay ndimbal yu bàyyeekoo ci biti réew ngir ñu ndogul leen ko seeni jàkk Euh, wallahi su doontuwul woon du buntub jàngale duma ko wax waaye bañ ngir bañ mu niru ne day nekk kàddu maa def waaye maa ngi wax ne lu dem ci fukki at ak ñeent ren ñun suñu jumaa fële ci Parcelles Assainies unité 17 amuñu problème képp ku jege foofu woor ñàkk lum dogoo amuñu problème am te jógewut ci benn réew nan la ñuy def ñu ngi nii ci baraxlu bi bari na ay nit ñu xam ne la leen yàlla dénk ëpp na seen bopp nga dem xeextal leen xemem loo leen ne leen ma ku ma jox xaalis soxlawuma ku ma jox leen dañoo bëgg ku togg ñam ca këram yenu indi ñu séddale la ko jullit yi su fekkee amuloo ko la toggal itam ñun am nañu équipe bu xam ne ay jigéen ñu volontaire te sellal boo leen fayee nangam danañ la toggal benn bis daaw bi ñuy jeexal koor wi toll nañ ci li ñuy sóor pour mu doy nit ñi dina dem ci ñaari cinquante ceeb maanaam ñaari saakooy ceeb dem ci barigo kon te am na maa ngi seetlu benn nit bu xam ne luy dem ci juróom-ñeenti at at mu nekk dafay wax ne fukki fan laay bindu fukki fan bis bu nekk moo koy ndogal jullit yi loolu lu ñu leen won la ci alal ñu defee ko noonu ñeneen def noonu ba mujj damay ñëw nit day ñëw di bind ma ne ah wax dëgg yàlla léegi liste bi fees na xanaa ñu seet fu ñu la orienté ndax am na li mbokk yi lenn la ci li jàkka mën a delloosi ci li jullit yi jooy naka noonu problème yi gaar ci wàllu ordonnance kooku it yàlla may nañu ci benn expérience mooy du ñu yëkkati benn ordonnance wan ko nit ñi dajale xaalis jox nit mu def ci poosam dañu naan la demal pharmacie nga laa ñaata lay jar nga jaar nga indi ñu xool li muy jar ñu ne jullit yi lii de jullit bu feebar la ordonnance bi nangam lay jar joxuñ kenn xaalis waaye dañoo bëgg ñu dajale njëg gi jënd jox ko garab gi mu fajoo néew na ñu gaaral loolu te fekk ne nit ñi dajalewuñ lu ëpp loola buñ dajale lu ëpp loola ñu denc ko bu beneen ordonnance ñëwee manqué ñu jël lañ dencoon mottale ko jënd mbokk yi lii ay réalité la naka noonu la ñuy waxee ci wàllu njàng mi ci leneen ak leneen kon man wax dëgg yàlla dama bëgg ñu romb jërëjëf waxtaan wi neex na ñu ngi gërëm conférence bi dama bëgg ñu romb foofu dama bëgg ñu dem pratique mbokk yi te itam su fekkee manqué nañu tuuti ñu seen ñu ñu jiitu ci jàkka te di pratiquer ñu leen di jege di leen laaj nu ñu defee nangam ak nangam léegi incha allah jàkka delluwaat na meloon mbaa ñun ñëpp danañ ci góorgóorlu incha allah jazakumullahu xeyran li ñu takkoon ci jàkka ji ñu bind leen kayit bu ñu amee problème itam comme reconnaître na leen kayit boobu ñu leen dellu leen ci jàkka ji imam bi ba xam yan taxawaay la ci am ñu appuyé foofu di laaj mbokk yi nañ ci def ay taxawaay kon mën nañu jëriñ mën na jëriñ si feete bi yàlla na ko borom bi ci wax taala def beneen bi ci def mooy ci wàllu xutba yi ci imam yi ci jàkka yi ñàkk a firi xutba man damay xalaat ba yàgg ma ne sax ñàkk xalaat am na ci am na musiba yu bari yoo xam ne nga am ci dëkk bi loolu mooy sabab ndax ñun li ñu tàmmal xeet yi mooy imaam bi buy xutba day ñaan suy ñaan dañuy wax amin am na aay yoo xam ne imaam yaa ngi koy jàng jàkk yi ñu wax amin te ñàkk firi xutba moo tax ñu amin te day nekk loo xam ne nekkul lu ñuy aminu ma jox ci exemple benn aay rek inna allaha yaamuru bil adli wal bi da koy mujjee ci xutbaam yu ci bëri lu mu wax ñu ne amin ñu firil la aay nga déglu nga xam ne imaan amul amin amul place bi mooy kii ñaan ñu ne nga ne amin mooy yàlla na yàlla nangu ñaan te ajjuma dafa am saatul ijaaba am na ci waxtu woo xam ne yonent bi saa ne ne ku taseeg moom di ñaan yàlla yàlla day nangu sa ñaan imaam bi taxaw ci min bar ne inna allaha yaamul bil adli ne amin wal ihsaan ñu ne amin wa itaayatil qurba ñu ne amin mu ne wayanha ani faxsha ñu ne amin déglu leen yi bu baax yàlla day tere ay ñaawteef la imaam bi ñu ne amin wal bax yi bax yi moom mbewte yàlla day tere mbewte moom la imaam ñu ne amin waaw musiba mi lan ñu ko yóbbu yàlla nañ ci yàlla musal moo tax ñàkk fi xot ba danger la de danger bu rëy la yàlla nañ ci yàlla sàmm sàmm ci xeet bi yëpp euh, beneen bi ci des fu ñuy jeexalee suñu kàddu mooy ci docteur jazawallahu xayran ku bëgg am yokkute ci waxtaan bi docteur def taalif na ci benn téere boo xam ne kayfa nuidul masjid makaratu fil fil fil islam téere bi mool nañ ko bu fekkee ne euh, dafa jeex nañ ko dellowaat ci marché bi mbokk yi jënd ko danañ ci gën a mën a jëriñu ko teg à la ñu bëri seetaan ko te ñu gën a jokkoo ku mel ne docteur Ahmad mu gën a mën a jëriñ xeet bi ñu ngi leen sant di leen gërëm te jazakumullahu kulla xayr ministère bi à travers la direction du livre mën naa fexe bañ traduire livre boobu nga xam ne moom la oustaz Mouhamad bind ci jàkka ñu traduire ko en français distribuer ko ça serait une bonne chose euh, voilà wasalaam euh, ala rasulillah wa alihi wa sahbi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا ak ministre bi man dindiku naa kumpa jàppoon naa ne ministre de la culture wala ministère de la culture ay yëngatoom lii bokku ci te yaakaar naa ne lii ma dindiku kumpa ñeneen dindiku nañ ci kumpa kon fa jazaahumullaahu xayran eh, ñu ngi ñaanal ñëpp ñu taxawee liggéey bi tey ñaanit mu bañ fee yem tey foofu sama ñaanit ci santaane sunu mag imam Babacar Sall buñ fi jóge rek ne macha allah loolu du njëriñal ki doon sonn di gëstu waxtaan ngir mu jàll jëfe gi mooy njariñ li mën nag ci ñaari tomb rek laay wax benn bi sama mbokk Mansour si junj na ko waaye dama jàppoon ne bu ñu waxoon li ma bëggoon a rek ak waxi koo xam ba muy wax da doon wax fam toll ak nam toll bàyyi waxi ki yàlla wax ne du wax ci lu dul lu ko yàlla wax yu mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom sax tënkuñu ci dee leen xutbaa nii dong maanaam yonente saa sallam bindul benn xutba ba fi ne nee leen yem leen ci xutba bi di ko xutba kon ma ne sunu mbokki ilimaan yi taxaw ci minbar nañu yëg dëgg dëgg dëgg yitte ji tege ci seeni loos ba bu ñu taxawee ci kanamu mbooloo mi ci jàkka ji ndax kat jàkka jo Ibrahima Khalil la joxe woon na ci misaal mu rëy rëy te jeexital na ci man mooy ministre bi président bi député bi préfet bi ndongal daara li ka jóge ca sardiñ ba bu ñëwee kenn du ne sa morom xajal ma kii palaasu jàmbur la ci suuf rek bu ilimaan di wax amoo droit ne ko may am naa ci kàddu ci suuf rek noppi rek waaw kon kii waajal lii ndax du yëg ne dafa war a waajal loo xam ne dafa war a jariñ ñi muy waxal tolloo gi tolloo li muy wax ak ñoom te dama jàpp ne keneen ka ne ca benn parlement di wax préparé la muy wax ngir bëgg bu waxee ñépp xam ne li muy wax jëriñ na kooku ilimaan a ko war a jëkk ëpp gëdd ci loolu kon ilimaan yi maa ngi soññ sama bopp di leen soññ ñu waajalaat li ñuy wax mbooloo yi fi may jeexale nag mooy li mu nu junj ne suñ bokk mën suur si wax ko docteur waxoon nag mooy problème yu bare nga tribunal mënoon na faa bañ a àgg te ñun ñoo fa samp tribunal samp li nga xam ne moo samp tribunal waaw ndax nag jotul ñun élimaan yi ñu takkutoo nag defaat baneen doonte dégg naa ne la neen a ngi fi lu ñu tuddee mbootaayu élimaan waaye nag laa la sakk leen kan ndax jotul nag ñu toogaat toog bu xóot waxtaan nag ba ñaan nag lépp loo xam ne yi am nañ ko ci jàkka yi ba wéyal ne wér na teg ca xat mu signé ko ndax nag loola ilim ka jiite réew mi nag du nu may waat nu loolu te loolu amoon na fi ci tànkolon tànkolon amoon na fi wala déet euh, docteur Khadim ma ne loo xam ne attekaay yoo xam ne nit ci lislaam yi dañuy atte atteb lislaam colonialisme mi bàyyi ko fi waaw bu ñu demee nag ba ñun jullit ñi ñu jiite nag te nungootu ñoo bàyyi loolu ndax jutul ñun jilimaan yi nag ñu delluwaat rabbaat suñu bopp taxawaat nag ci kanamu ki nu jiite te amal nañu lu bari ca ñoom ñun ñoo leen fa teg ñu ñaanaat leen ñu delloo na sunu baat su njaboot yi amee jaaxle ñu lijjanti ko balaa àgg ca tribunal ba ndax la fa nekk ci dossier xaju fa te waxtu wa jotewu ko te ñoom mënuñoo fay waa boobu yëpp te ilimaan yi duñ leen laaj salaire wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Ndiaye kon léegi dañuy joxaat rek conférencier bi euh, euh, kaddu gi pour mu tontu euh, question yi def naa lépp ay contribution la. mais y a quand même ay quelques questions. alhamdulilah. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. li ñuy tàmbalee bu fekkee déglu am na moo di Abdallah. ma ne li ñuy tàmbalee bu fekkee déglu am na mooy sant mboolem ñi nga xam ne jaar nañ fii ci ay wax di rafetlu itam seeni wax ak seeni contribution euh, ay benn benn yi luy nuru ay laaj wala ay wax yoo xam ne war naa caa waxaat leneen moo fi jaar comme ni ngeen koo xamee waxtu tisbaar wi jot na bu dul woon yaatu waxtu tisbaar moom dañ koy yemale fii dem julli ji bu ñëw nu dem wala mu yem foofu waaye nag ginnaaw waxtu tisbaar moom alhamdulilah waxtu yaatu la euh, kon ñu jéem a góorlu ci lu dul jël waxtu baree bari euh, jéem a romb ci li nga xam ne romb ci mënta ñàkk kon defe naa bi may tàmbalee sax mooy laajub kilifa gi nekk ci sama wet ndax dafa laaj euh, différence bi dox diggante jàkka ak jumaa donte loolu rotoon na ci biir wax ji ñu xam ne lii cosaan mooy bu fekkee quartier ay quartier dafa am quartier bi nit ñi aajowoo ay jàkka yu bari mën nañoo am ay jàkka yu bari ba noppi am jenn jumaa loolu mën naa nekk bu fekkee ne ab dëkk la boo xam ne dëkk bu ñépp mën a jullee ci benn bërëb la béréb boobu xas nañ ko tabax ba tuddee ko jàkka nañ xam ne kooku itam mën naa nekk jumaa maanaam ay nit daal liñ mënta dégg mooy ñu aajowoo jumaa ju ñuy jullee ji ajjuma ba noppi tabax lu ñuy tudde jàkka mu wóor leen ne lii mënees na fi julli ajjuma ba noppi ñu ne lii du jumaa kon duñ fi mën a julli ajjuma loolu moom moo amul ay firnde yu koy dëgëral ci e, ci fiqhul islaami e, ci biir kàddu yi docteur Thierno ñu ngi koy sant bu baax a baax ci kàddu yu rafet yi e, da xëy na dafa déggee ci sama biir wax yéen ne jàkka waruñu ko askane eh, mu yaakaar ne tariqa rek moo tax may wax waaye bu seetluwaatee wala mu delluwaat ci kaset bi déglu bu baax a baax kuréel laa wax maanaam jàkka waruñu ne lii kuréel sàngam ñoo ko moom kuréel nag bu ma ko waxee tariqa ngi ci biir leneen lu dul tariqa mi ngi ci biir kon laaj bim settee wax ne loolu su fekkee ne ndax ñoom ay sunnit lañ wala moo xam tur wuñ tudde seen bopp dana wér ñu neen lii mooy seen jàkka ma di ko xamal ne lépp lu dugg ci biir kuréel du wér ñu ne lii jàkka yoo xam ne kuréel sàngam ñoo ko moom la waaye jàkka moom jàkka yàlla la su xasee ubbi ku ñépp ñoo war a ñëw julli si su fekkee ne am na fa yenn yu ñuy def loo xam ne luy jariñ doomu aadama yi ñépp ñoo ko war a bokk euh, Sidi Muxtaar Diop euh, moom wax na wax yu am solo waaye laaj na it laaj yoo xam ne yu xaw a takku la waaye ñu jaar ci jaar bu gaaw a gaaw dafa laaj ndax ju jullik ajjuma am na naafila gu jiitu maanaam li ñu tudde as-sunna al-qabliya ñu di ko xamal ne bisu ajjuma nit ki waaje këram ñëw te teel ñëw sañ naa julli ay rakkaam yam soxla comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe thumma salla ma kutiba lahu maanaam ku waaje këram jàpp dikk julli la ko neex ci xeeti naafil la su imaam duggee mu toog ne tekk di ko déglu loolu nit ki sañ na ko leneen li mooy li ñenn ñiy def mooy dikk julli seen julli yooyu ñu julli ba àggal toog bu noddkat bi nodd nodd gu jëkk gi nodde ñu jóg julliwaat ñaari rakka loolu moom saxut day mel ni ñaari rakka yooyu ñaari rakka qabliya la yoo xam ne eh, su boobaa kooku moom amul amul dalil bu mu saxee li nga mën a def daal mooy teel mën ngaa teel a ñëw def say la toog walla beneen bi ci des mooy nga dugg si ci jàkka ji nag ki dugg si moom faawu day julli ñaari rakka balaa toog ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen bu duggee jàkka bum toog lu dul julli ñaari rakka kooku moom imaam jaa ngay xutbaak ak xutba wut ñoo ci yam saa bu duggee ci jàkk ji balaa toog moom war naa julli ñaari rakka waaye kooku bokkut ak sunna qabliya bi nga xam ne moom la kilifa gi di laaj ña loolu am na ay melokaan yoo xam ne am na fu muy dagane am foo xam ne gënewu fa fi muy dagane mooy mi ngi dellu ci qualité jàkka ji am na ay jàkka yoo xam ne dañoo nekk ci ay yoon yoon yi tukki waxtu julli mën naa jot mbooloo ñëw julli seen julli mbooloo dugg seeni oto dem meneen mbooloo agsi julliwaat dem foofu lu mbooloo ya bari bari lu jaadu la jàkka joo xam ne dafa nekk ci marché waa marché bépp xëjuñu ci jàkka ji amaana mbooloo ñëw nañ julli ba dem meneen mbooloo ñëwaat julli kooku dara nekku ci waaye li ñuy bañ te borom xam-xam yi àddu ci bu baax a baax a baax muy moo xam ci borom xam-xam yi maaliki yoon yi la wala borom xam-xam yi shafiiye yi ñoo ci gën a dëgëral lool waxin mooy jàkka ji ne ci quartier bi ñi fal imaam ratib mu doon jilimaani mbooloo mi ñi nodd woote ñi ñëw julli imaam jiite leen ba sëlmal meneen mbooloo duggaat daa di jiital seen imaam li xaamal ko mu taxaw di julli mbooloo loolu moom mooy li nga xam ne rot tere nañ ko li tax ñu tere ko itam ni ko al imaamu Shafii di wax ci téere bi ñuy wax al umm daf ne lislaam dafa xër ci nit ñi bennoo te su fekkee ubbi nañ boobu bunt mën nañoo fal imaam am ñeneen ñu ko contre dem ca ruq ba fal seen imaam yi bopp saa bu sëlmalee ñu jiital seen imaam ñoom ñëw taxawal ñu ne kon loolu moo tax ñu ub bunt boobu bëgg nit ñi nekk benn ci biir jàkka ji loolu moo tax su imaam ratib xasee am su ñeneen dugg see kenn ku nekk mën ngaa julli sa jullit bopp te julli sa julli bopp googu xañu la jullit mbooloo am na xadis bu wér boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa wax ne ku jàppe ci sa kër dox ñëw ci jàkka ji dox gu ànd ak dal fekk ilimaan sëlmal nga julli am nga yoolub mbooloo kon kooku jërëtut ngay ngay xëccoo naan faaw fal jeneen imaam wala ma jiital keneen beneen bi dafay laaj ndax ajjuma bu dajee bisu iit bisu iit nag mooy kori wala tabaski bisu korite wala bisu tabaski su nekkee àjjuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ci ak dundam dafa julli iit ba àggal ne leen tey day ajjuma la kum soob bu waxtu wa jotee mën ngaa dem julli ji kum soob it mën nga koo bañ julli foofu masala bi fi am mooy bu boobaa nekkatul lu war nekkatul obligatoire kum neex nga dem julli ji ajjuma kum neex it nga dem julli ji tisbaar waaye nag buñ ko déggee ne da nga dul julli dara am na ñoo xam ne déggin woowu lañ ca am defe ne boo julli ji wut ajjuma rek kon mbir yi wàcc na la nga faf toog du noonu da ngay dem julli ji tisbaar te it liñ ci war a déggaat leneen moo di waxuñu ne kenn du julli ajjuma ci jumaa ja am na ay mbokk yoo xam ne loolu gaar na leen fi am at ñu tëj jumaa ja ca bisu iid ba ñi ay nit ñëw bëgg a julli mënuñoo julli ajjuma mënuñoo julli tisbaar ndax ñu ne kenn du fi julli dara tey loolu loolu njuumte la maanaam imaam dana julli dana xutba dana def lépp jullik ajjuma waaye nag ña daan ñëw di julli si kum neex nga ñëw kum neex doo ñëw te bu jëkk kenn sañul woon a bañ a ñëw loolu moo doon àttal loolu rek moo leen wutale moo ko wutale euh, laaj bi nag dafa baamtu lu bëree bari mooy jàkka wala jumaa ji nga xam ne ab xabru dafa nekk ci biir euh, julli fa ndax day wér wala nu muy demee mbokk mi euh, ci intervenir am wala ci question laaj na ko <coughs> muy Alxasan Jàlloo laaj na ko kayit yi ñu bind ay laaj itam mi ngi ci kon léegi lii cosaan xam nañ ko mooy dugal gi ci biir moom du lu jaadu moo xam jàkka jee fekk si moo xam xobru bi ma fekk si waaye dugal gi jaaduwul waaye nag dugal gi am na ba noppi nu ñuy def su fekkee ne daal ñaari jàkka jege nañ la bii am na xobru bii amu ko demal julli jee ba amulu xobru mooy li jaadu jeneen jegewu fa nag comme ni ko mbokk mi posé ci question bi jàkka ji am xabru bi képp moo fi jege boroom xam-xam yi dañoo wax ne su fekkee ne diggante xabru bi ak cour bi nit ñiy jullee am na lu dox ci diggante bi lu mel ni mur ñu koy tudde xaail su boobaa julli ci biir kuur boobu mën naa nekk su ko defee la fay des mooy bàkkaarub ña ko dugal ci biir jàkka ja waaye kay julli moom yoonam nekkatul ca loola waaye nag li wér wér mooy saabu bu jàkka amee nag joo xam ne mucc na ci yooyu yépp moom jooja jàkka mooy doon ji nga xam ne dem ca mooy doon la gën Euh, soxna Fatou Bintou wax dëgg yàlla wax na wax yu am solo ci euh, lu aju ci wàllu jàkka ak gàttañlu gi nga xam ne mi ngi gaar jigéen ñi ci wàllu xam-xam bi euh, xanaa ñu di ko ci dolli rek te xam ne ñu mel ne ñoom ñu mel ne moom mën nañoo liggéey ci seen mbokki jigéen ñi loo xam ne góor ñi mënuñu ko ci doon te boroomi xam-xam la ñuy doon sax nag ndax jigéen ñi lu gën a bari ci jàngal leen ak jariñ leen seen moroom jigéen ñoo ko gën a mën loolu moom réalité la boo xam ne moom dañ ci tegoon moo tax jàkk yi nag dafa war a dem ba àgg ci li ma gis ci almasjidu nabawi ca Madina moo di am na xalqa mooy palaasu xam-xam boo xam ne jigéen ci boppam moo fay jàngale ay jigéeni kes yi ñoo fay ñëw ñu bare bari xëy na ñuy dem foofu jombul yëguñu ne lu mel noonu am na fa waaye ci biir almasjidu nabawi ci jamono yooyu ya ma koy xam euh, fa nga xam ne fa la bibliothèque ba nekk am na beneen ruq bu nekk ci biir boo xam ne bu yaatoo yaatu la foofu mooy xalqab jigéen ñi maanaam mooy seen palaasu jàngukaay boroom xam-xam bu jigéen boo xam ne am kaang fóore lay doon moo koy toog jigéen ñi war ko mu di leen jàngal seen seen xam-xamu diine loolu it war nañ koo jéem suñ jàkk yi man koo am ndax xam ngeen ne fi tollu ci ak defaraat rek lañ nekk euh, loolu daf may yóbbe ci li mbokk mi waxoon sànq bi mu laajee mu ne euh, muy muy Sidi Muxtaar mu ne gis na ne posé nañ problème yu bare bari te tudduñu saafara ñi di ko xamal ne lii nii ci saafara yi la bokk maanaam lu mel ni jataay bi ñu toog tey nii ci ci saafara yi la yu mel noonu su amee ay jéego la yoo xam ne pour jéem saafara yi am la euh, professeur Anne nag dama xamul dem na wala mu ngi fi am moom mi ngi fi de waaw moom ala kulli xaal dafa am ay ay ak xër xëy na aku bëgg waaye it dafa am yum dese yoo xam ne war na cee gën a góor góorgóorlu bu baax en tant que jullit buy laa biira mbokk jullitam moo di lislaam ci jëmmi boppam dafa laaj jàng jàng maa ngi koy laay biir mu seet boroomu xam-xam boo xam ne bu jàng diine la xam alquran xam sunna mu taqoo moom ab diir jariñu ci moom boroom xam-xam yi dañuy wax ne lislaam boo ko liiree boo ko liiree li ngay yàq mooy ëpp li ngay defar ak sa bëgg nag fu mën a toll lu mel ne xadiis bii nga xam ne moom la junj léegi ñaari xadis sax la junj benn bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xadis bu wér la mi ngi ci saxiixul Buxaari bi mu demee ba ci boroomam ñu farataal ci moom juróom fukki julli mu wàññiku ba ci Muusa mu ne ko dellul mu delluwaat ñi wàññi mu del si mu ne ko dellul mu def ko ba mu doon juróomi julli mu ne ko dellul mu ne ko sax nag damaa am kersa ci dellooti moom mu déggee ci ne kon day mel ni Moussa moo ëpp xam-xam suñ yonent bi <coughs> te suñ ne Moussa ko ëpp xam-xam kon loolu day weddi alxuraan mu teg cab xadis mu ne ndax yonent bi nee na woon bépp xadis boo xam ne juyoon ak alxuraan bu leen ko gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néewul bépp xadis bu juyoog alxuraan bu leen ko gëm loolu ci la ñuy tànn maanaam loolu loolu du xadis loolu ci boppam ab xadis du wér jóge ci yonent bi di juyoo ak alxuraan amut munta nekk ndax ñoom ñaar fenn la ñuy jóge yàlla dafa wàcce ci moom alquran ba noppi ne in wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa wax yuuxa ne leen yonent bi du wax ay neen lu mu wax lu ne man maa ko wax loo contradiction munta am diggante alxuraan ak xadis bu wér saa boo gisee contradiction boobu rek sooy bonu tuumaal sunum xel ak sunuy gëstu sooy bonu tuumaal sunu xel ak sunuy gëstu jàpp ne nun noo déggul dégg nag lay tax nu mën koo def mooy dellu ci borom xam-xam bu xam boo xam ne day jàngale ci ak teey di faram fàcce waaye liir boo xam ne bu yàkkamti la boole ko ak sa bëgg ak sa xër ba noppi nag yàlla boo ci boolee fa nga nekkoon da nga faa doonoon dara ndax it li problème yi faral di dal xalaatkat yi penseurs yu mag yi mooy dañuy nekk ci dara doon ca dara dem ba doon fa kilifa sax nag boroom xam-xam bu mag ca lañ jàng door wëlbatiku yittewoo lislaam lii ne ci seen xel mooy nañ tolloon foofa noonu lañ toll ba tey lool ay njaaxum yu mag dal nañu ci ay nit yu tuub dugg ci lislaam ay nit yu mag garoodin nit yu mag ku mel ne garoodin tuub na dugg ci lislaam doon xalaatkat boo xam ne kenn nakk lu ci xalaatam ci philosophie ak lu ko nuru waaye dafa tuub dugg si jullit yi daal di koy taw fa mu toll woon ci philosophie ñu bëgg ko fa tolloole ci lislaam mu tàmbali di bind di joxe di wax di tasaare indi indil nu ay njaaxum yoo xam ne kenn xam ah. maanaam la jaadu mooy kane ca kaw ñu ne ko yaa fi nekk ndax yaa xam philosophie yaa xam nangam yaa xam nangam ba mu xëy nag bis ñëw ne maa ngi nag jullit laa dañ naan ko ah tey ndongo nga kaay tey moom taaluga bu ndaw nga kaay tàmbalee ci suuf boo dikkee sukk fa basan nga sëñ ba di la jàngal ngay yéeg ndànk ndànk di yéeg ndànk ndànk boo góorgóorloo nag ba fa nga woon bu njëkk nga tolluwaat fa ci lislaam ñu ne ah sunu waa ji nag agsi na léegi parce que boole na xam bu njëkk ba ak bu mujj bi kon léegi sañ naa wax ci lislaam waaye boo jaawalee rek da nga ne fa ma toll woon fi laa tollu fii su ko defee da nga ne lu ma sañ a wax ci la ma xamoon rek sañ naa ko wax ci diine ji su ko defee boobaa da nga tasaare yoo xam ne maanaam kenn du xam sax li ngay wax lu mu doon ndax yow mi koy wax xamoo ko yëgoo yow mi koy wax li ngay wax ni mu grave maanaam yëgoo ko parce que mi ngi mel ne rek moom lam jàng waa ji jógoon nekk ci daaraam rek di jàng ba mu yàgg mu xëy xëy ne ko tey ma jàngal la philosophie di la ci wax loo xam ne mosoo koo xam yow ma ko jàngoon ba xam ko li ngay dégg ci toj-toj yoo xam ne kookaa nga koy wax yow mi xam loolu rek yaa ko xam noonee nag noonu nga mel ci ki jàng lislaam fi ne booy wax moo tax nag loolu dafay laaj nit ki ci boppam euh, mu bàyyi xel mbir yu mel noonu euh, pour bañ a guddal foofu mbokk mi Mouhamad si euh, oustaz Mouhamad ci jiite kuy tukki ban façon tukki la wax ndax mooy tukkikat yépp wala koo xam ne tukki bu sori la ala kulli xaal ci imaam euh, buñ nee musaafir ci sharia mooy kii tukki tukki boo xam ne mën nañ caa wàññi julli maanaam mën nañu julli ñaari rakka mën nañ koo julli ñaari rakka loolu nag borom xam-xam yi am nañ ci sax ak juuyoo waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër foofu mooy lépp loo xam ne wér na ne nit ñi tukki lañ ko tuddee dem na ba ñëpp xam ne kii ci tukki la nekk bu boobaa mën naa wàññi julli su boobaa moom la ñuy tudde musaafir moo moomu nag euh, ñi wax ne munta jiite julli ak ñi naan mën na koo jiite foofu werante dafay am woo xam ne li gën a dëgër moo di man ngee jiite waaye nekkul al awla moo tax euh, alxijaawi ci zaadul mustaqna dafa wax iwaara bu am solo daf ne as gor ak muqiim ak kuñ jongal ak ku am ay yéere noonu la leen tudde ñooñu ñoo gën a yeyoo imaam seeni safaan ñoo gën a yeyoo imaam seeni safaan waaye waxul ne seeni safaan mënu ñoo jiite de waaye kii teew na kii teew na kuy tukkee ngi ku teewe ngi ñoom ñaar ku ci gën a yeyoo ñu jiital ko ki tukki eh, ki teew ki tukkiwul ñi ci des ñëpp boo leen toppee ba ci mujj ga saa buñ teewee ngay tànn kon ka ca des moo gën a yey waaye nag dàq ko ne mun munta jiite la mutlaqan kooku moom day indi problème yi mag a mag a mag boo jàngee surtout ci taarixul islam ji saxaaba yi tukki ay béréb yoo xam ne kenn xamut nu mu toll àgg fi béréb doon fa imaam ba nañ fa jógee yonente bi alayhi salatu wasalaam nekk ci tukki àggagul wàcc ci bani salim ibn bani awf ibn ci quba almuhim jiite leen foofu ñëwati masjidul juma fekk fa mbooloo ma julli de teeru ko foofu mu jiiteeti leen ta doon gan ca dëkk ba kooku da lay indil ay problème yu mag a mag mooy mën naa mën naa jiite moom musaafir waaye nag su musaafir teewee muqiim teew bu mel ne moom muqiim teew bu mel ne moom su boobaa muqiim moo gën a yey moo gën a yey kat buñ ko waxee it tekkiwul ne bu kee jiite woon jullit gi de julli gi day yàqu waaw julli gi du yàqu de julli gu wér lay doon insha allah <coughs> mbokk mi Ousmane Kane euh, posé na ay question yu am solo benn bi mooy imaam ji yeex a ñëw julli si ba naib maanaam ki ci moom euh, xutba ba àggal bi mu wàccee fekk ni imaam ji ñëw na mu jox ko mu jiite julli ñu ciy werante ndax julli ga yàqu na wala julli ga yàquwul loolu moom wax dëgg gisuma dara luy yàq julli gi maanaam luy yàq julli gi amut xanaa kay imaam mooy war nay góorgóorlu ba du yeex a ñëw war nay góorgóorlu ba du yeex a ñëw su fekkee ne du ngànt lu rëy moo ko gaar la gën a yey nag mooy ka xutba ci boppam mu jiite nit ñi ndax lool loolu mooy organisation bi nga xam ne moom la lislaam teg maanaam ñàkk koo def xotti organisation bi la waaye mënuñoo wax ne aw ak talam maanaam effet bi muy indi mën naa dem ba àgg ci julli yàq julli gi déedéet loolu moom jàppuñu ne àgg na foofu waaye nag doonut li nga xam ne moo gën yalwaan ci biir jàkka mu wax ne dafa gis ku ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa tere yalwaan ci biir jàkk yonente bi alayhi dafa tere yalwaan ci boppam du ci biir jàkka waaye ci dafa tere ku yalwaan lu dul koo xam ne ñetti mbir moo benn dala cee gaar ki leb ay bor ba fees dell ki bor te fekk ba muy leb bor yi ci fu baax la ko jëmale woon am da doon leb xaalis du ko def ci lu jaadu defoon ne dana mën a fay te munta fay nee na kooku dagana lal nañ ko ubbil nañ ko fenêtre mu sañ laaj ba fay borom yooyu te bu ko fayee mu yem ca keneen ki mooy koo xam ne li ñu tudde jéeya jaaixa dafa ñëw ci këram maanaam kër ga lakk na walla tool ya lakk na wala yaasu billah wala inondation bi ñëw na ndox ma yàq na yëf ya yoratul lum dunde mu ne kooku ubbil nañ ko fenêtre mu sañ a laaj ba am lum dunde ñu jox ko keneen ki ci des nag mooy koo xam ne faaqa moo ko dal mu ngi góor góorgóorlu mu ngi liggéey di def effort lu nekk mi ngi koy def waaye mënta fexe ba am lu mu dunde kooku bu laajee sañ naa laaj ñett ñi képp nag la lislaam ubbil fenêtre ñu sañ a laaj keneen ku kooku boo taxawee ci mbedd di laaj wala ci jàkk yaa ngi jalgati te li mbokk mi wax daf cee am mooy dafa am laajkat yoo xam ne ay professionnel lañ dañoo dem a dem ba mu yàgg ñu yëg ne lii mooy seen métier léegi laaj képp lañ fas yéene def di yalwaan lu lu kéemaane kéemaane as ndaw soo te te problème boobu du fii rek de maanaam da ngay dem ba Arabie Saoudite wala feneen réew yi nga xam ne ñu riche fa nekk nga gis nit ñoo xam ne dañoo taxaw te bokk ci même ci waa réew mi sax di yalwaan ñu di leen ko tere maanaam dañoo am ay ay ay ay organisation yu taxaw yoo xam ne pour contre euh, yalwaan moo ko tax a jóg am na ndaw soo xam ne dañ koo jàpp euh, foofu xam nga dañuy solo ba nit ki kenn du ko gis da daan ñëw ci jàkka yi rek lay topp di yalwaan muy koor muy budul koor saa bu ñu julli bu ne mi ngi toog ci bunt bi suñu jigéen ne di ko jox ndekete ndaw si li mu yor ci xaalis mi ngi yor benn compte banque boo xam ne maanaam li ci nekk ñu bari ñu yor ay société amuñu xaalis bu toll noonu day def bu jekkee ba mu yàggoo day jël vacance dëgg biyeem dem wàcc keer doon keneen sol yeneen yéeréem dal ci hôtel nekk fa dinonce ba mu neex ko mu agsi daal di solaat yéeréem dikk commencé toogaat ci buntu jàkka yi maanaam yalwaan nag bu àggee foofu maanaam kooku kooku kooku musiba la musiba moo xam ne day jar xeex ko nag ak ak jële ko fa te ñu bare bari ñoo xam ne dañuy yalwaan ak di laaj nag ci situation bu mel noonu ci la ñuy dund loolu mooy tax léeg-léeg nit ki dem dana dem bay bëgg joxe waaye rek bu xalaatee du joxe amma ki ba nag keneen ki ñëw di di yemale sàppe yi kooku moom itam mu ngi mi ngi juyoo organisation bi nga xam ne moom la lislaam teg yemaley sàppe kañ lay doon mooy suñ liqaamee ba noppi imaam ñëw topp sàppe yi yemale leen bañ yem mu door a kàbbar yonente bi alayhi salatu wasalaam noonu la ko doon doxe doxale waaye imaam buy xutba liñ bëgg mooy ñëpp dañ toog ne tekk bu am ah waaw boobu fonction moom dañ ko war a annuler parce ndax xam naa ne li ñuy yàq moo ëpp li ñuy defar jamono yi imaam di xutba ki taxaw ci kanam naan ko defal nii dugal fee génnal fii kooku mi ngi yàqal mi ngi yàqal nit ñi lu bare bëree bëri kooku oh, lu mat a bàyyi la nañ bàyyi imaam bu nit ñi toogee ñoom it nañ toog tooginu xel ndax ñi ñëw ci jàkka ji li ñuy séentu ci ñoom mooy ñu xel lu lañ dikk nga toog wóor na leen jàkka ji xat na toogal toogaay wax na bu yem la sa moroom toog ci sa wet toog ci sa ngeen toog toogaay yoo xam ne yu jekk la en tant que ay mag en tant ay responsable waaye dikk fekk jàkka ju xat nga ñëw ferenk laay toog toogin boo xam ne wóor na ne place bi nga jël ñaar xaj nañ fi kooku du doonut loo xam ne même bu ñu ko waxut jullit bi loolu jaaduwut ci woon jarul nit di ñëw naan ko jekkalal sa toogin moom moo ko war a defal boppam loolu mooy li jaadu su loolu amut nag la ca des mooy ñi bàyyi leen ñu toog noona kenn ku ne toog fa nga mën a toog bañ li xaam ba imaam jóg ñëpp danañ taxaw taxawaay boo xam ne taxawaayu kenn nit lay doon fu am place fu ne nit dana waaxu dikk dugg foofa sàppee jekk am daal di taxawal julli gi tàmbali. voilà <coughs> ki nga xam ne may nañ ko mu laaj mu ci ma tudd moom la mu docteur di fàttali maanaam laaj yi wet nag dafa war a doon laaj yi wu wu ànd ak wu ànd ak sutura wu ànd ak sutura ndax su fekkee jàkka yi organisé wu nañ ni ñu war a mel kooki yor soxla su toll noonu. bu dikkee au lieu mu taxaw ci mbedd mi di tàllal loxoom day ñëw direct ci imam imam organisé na jàkkaam ba lu mel ne lii imam Babacar Sall tudd fii léegi su amee ci jàkk yépp kooku kon yalwaan mën naa man naa jeex ci jàkka ndax bu fekkee imam di nga soxla te yor nga soxla boo xam ne bu wér la nga dikk ne ko ah, kër ga di lakk na foo dëkk ah man ne maa nga dëkk béréb sàngam baax na danañ fa yebal sa nit danañ fa yebal si nit xamoo kuy indi ndimbal la wala kuy def na la waaye kooku day ñëw seet si ba xam kër gi lakk na am déet imaam dafa yebal nit mu dikk adresse bi nga ko joxoon mu ñëw seet la ba mu wóor ko ne yow mii sa kër lakk na yàqule nga mu dikk joxe rapport am ne ah kër ga de nañ ko wóor nañu ne lakk na te waa ji soxla na ndimbal mu ne ko kon ajjuma ji ñëw na nga ñëw wala bi sàngam dikkal bu dikkee mu déclaré ko ci mbooloo mi ñuy dimbali ko jox ko kon yalwaan yi mu mel noonu mooy wu tegu ci biir su ci sutura mooy wiñ xamit fu mu tàmbalee ak fu mu yem waaye su dul loolu kenn du xam fu mu ndax bu dee ko taxaw ci mbedd bi rek tàllal loxoom la taxaw ci biir jàkka ji léeg-léeg sax da ngay gis jàkka yoo xam ne nit ñaa ngi imaam jaa ngi xutba am ñuy waaxu di dem ak ñëw xam ne nit ñi bëgg a déglu xutba bi sax duñ ko mën a déglu yu mel noonu moom loolu taxul ñuy wax ci yalwaan mi Lamine dem ba tudd na ay fonction yu bëree bëri yoo xam ne yu war a dolliku ci yooyu la loolu lu am solo la Mm-hmm. am na mbokk mi Abdourahman Ba dugal xale yi nga xam ne dañuy dugal ak ay salte ci jàkka euh, responsabilité boobu euh, ñépp ko bokk maanaam parent yi ñoom ñoo ci jiitu ndax yow miy jël sa doom di ko indi ci jàkka ji yaa ko war a sàmm ba mu mel ni mu war a mel mu wóor la ne diggante bi mu fi am itam dara du ko fi gaar ndax am na euh, toppatoo nga ko ba mu mel ni mu war a mel door a ñëw ci jàkka ji waaye nag su fekkee ne parents yi defuñu li leen war it nag bu boobaa responsabilité bi imaam itam day daal di jóg taxaw mu war leen a ci loolu bu jaree xutba sax mu xutba ci ne leen gone yi nangam ak nangam nañuy ñëwee noonu mbokk mi Mansour ci lu aju ci suñ mbokk Mansour si euh, lu aju ci euh, téere boobu aju ci wàllu mosquée euh, dëgg la première édition bi moom jeexoon na bu yàgg sax waaye am na ay mbokk yu nekk Koweït euh, doon nañ ma ñaan ma may leen ñu mool ko ba jot nañ ko génnewaat ci ci seen ministère bi nga xam ne mooy wisaaratul awqaaf ci Koweït ñoom ñoo ko moolaat beneen édition waaye man agseegul ci man donte nag am na ay mbokk yu nekk Koweït ñu yëgal ma ne ñoom gis nañ ko ba ñu ngi ko yore sax foofa waaye liñ ma ci joxoon muy sama cër moom agseegul euh, traduction bi itam lu am solo la xëy na danañ ci déggoog mbokk yeeg docteur Khadim xool nañ koy doxal donte amoon na mbokk mu ko tàmbale woon di ko traduire téer bu yàgg yàgg waaye dafa yeex yeexaay boo xam ne maa yaakaar ne daa mujj sax far bàyyi euh, mi Mouhamad Mbodj lim junj loo dëgg la maanaam imaam yi juyoo gi am na ci ndax danañ xutba ci arab ak duñ ci ndax danañ xutba ci weneen làkk wudul arab wala dañuy xutba ci arab rek juyoo gi moom lu am la Euh, débat bi muy wax it su ko defee lu am solo lay doon ndax dana tax nit ñi xame ci lii ndax lu jaadu la wala lu jaaduwut la ala kulli xaal ku lay wax ne ñaari ñaari xutba yi moo wuutu ñaari rakkaa yi loolu moom njuumte la ndax amul amul benn dalil te yonente bi alayhi salaatu wasalaam dadaa nekk ci xutba ba mu yàgg mu wàcc di def dara wala mu arrêté xutba bi sax di wax nit dugg na ci jàkka ji Sulayk al-Ghatafani fekk muy xutba mu agsi rek daal di toog mu ne ko ah su lekk ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu ne ko jógal julli ñaari rakka daa di ne su kenn ci yéen duggatee jàkka imaam di xutba bala ngaa toog julli ñaari rakka te loolu kat léeg-léeg mu indi problème ci suñu jàkka yi léeg-léeg imaam di xutba nga ñëw bëgg a julli ñaari rakka da gis ku jàpp sa mbubb di la xëcc di la di la toogloo loolu ñàkk xam la xadis bi ma lay wax ni mi ngi ci saxiixul buxaari ak saxiixu muslim kon ah, jëmmi euh, ne ne xut nit ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di di di xutba xam nga arab yi nga xam ne ñoom ñooy niti kaw yi comme ni ma la ko waxee woon lu bari ci ak atte sharia xamuñu ko te ñoom moom automatiquement dañuy wax li nekk fi ñoom yonent baa ngi ci biir xutba bi xamul ne kenn warta wax ci xutba mu taxaw fële ne ko man day jaamu yàlla laa boo xam damaa ñëw di jàng si sama diine te damaa yor laaj bu ma ñor yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc arrêté xutba bi ñëw ba agsi fi moom ñi tegal ko chaise noonu lañ ko nettali ci xadis bi waa ji di ko laaj mu di ko tontu mu koy laaj mu koy tontu ba mu yàgg mu waaxu dem yéegaat ca minbar ba àggale xutbaam loolu defe naa bu doon ñaari rakkaat ci julli loolu kenn mënu ko ah manees nay julli ba mu yàgg benn waay ñëw leen damay laaj sama diine nga ne xaar leen ma dem tontu ko te ñëw àggale boo dikkee fekk ñu wutal keneen mu àggale julli boobu kon defe naa ne loolu mooy li ëpp solo ci lu jaar foofu waaw kii waaw léegi jëmmi tabaxee jàkka alal joo xam ne ju lewut la loolu faaw ñu wax ndax mbokk mi junj na ko sànq kii itam dafay laaj eh, ñi nga xam ne ay ay ay ay amaana sax ay association la wala ay organisme yoo xam ne dafa taxaw ci lu lu lewut lu mel ne béréb bi kartukaay yeeg yu mel noonu su fekkoon ne béréb bu mel noonu daa tabax jàkka ndax jàkka ji julli fa dana wér wala julli fa du wér wala ndax tabax gi dana wér wala du wér <laughs> waaw ala kulli xaal nun duñ détaillé ci yu mel noonu dañuy wax ne béréb bi nga xam ne bérébu kartukaay la wala nit ki nga xam ne day fàggoo alalam ci lu léwut wóor na ko ne moom li muy def léwut maanaam jaaykatu sàngara la wala jaaykatu leneen loo xam ne xam nañ ne lii baaxul ba noppi nag mu bëgg a tabax jàkk ndax dañ koy wax doo tabax jàkk wala dañ koy bàyyi mu tabax jàkk li wér te wér mooy ñaari mbir dafa am ci xam-xam yoo xam ne faaw ñu xamee ko ci fiq dafa am li ñu tudde as am li ñu tudde al-qabul sixa mooy lii mën naa wér nangu nag mooy ñi nangul ko ko defal ko ko tuyaaba moo tax dafa am qaayida bu am solo borom xam-xam dañuy wax la talaazuma bayna sixati wal qabul mbir mi mën naa wér te duñ ko nangu nit ki mën naa ñëw julli julleem bu sell jàpp na bi mu taxawalee jàng na alxuraan li mu bëgg a def lépp def na ko nga xam ne kuy àtte da nga lii julli gu wér la julli gu wér la itam nag waaye ndax nangu nañ ko foofu la yëf ya nekk ndax nangu nañ ko maanaam mën naa am tomb yu nekk ca biir yoo xam ne gisoo ko yow yoo xam ne digganteem ak diineem la yooyu dana tax duñ nangu jaamu yàlla am gi ginnaaw nag lu wér la ka julli ci gannaaw moom julleem wér na maanaam duñ ne ko ginnaaw nanguwuñ jaamu yàlla am nga duñ nangu sa julli yow mi julli ci gannaawam déedéet ginnaaw julleem wér na yow mi julli ci gannaawam sa julli mën naa wér waaye nag yow mi julli ci gannaaw mën nañoo nangu sa julli te moom mi doon jiite nanguwuñ ak julleem looloo tam day am kon ki ñëw yor alal joo moo ko fàggu fàggoon wa nag maanaam nam ko amee daganut waaye moo ko moom ndax alal yi ñuy moom benn mu doon moom gu dagan ak moom gu daganut moom yi daganut yooyu nag ñaari xaaj lañ am na ci boo xam ne moom mënoo cee def dara parce que ko da nga koy delloo comme ki sàcc alal jàmbur kooku moom delloo borom rek këf delloo dajji kees delloo kooku mu mënoo ci def dara waaye nag kii jaay sàngaraam waa ji ñëw yorub xaalisam soxla sàngara nga jaay ko mu jënd sàngaraam dama yor ki ñëw di jënd carte cartam fas yéene dugg ci pay mi wala moo xam te duñ ko mën a jox mu ñëw jënd cartam joxe xaalisam dem kooku moo joxe xaalisam ci teey bakkanam kon yow mii xaalis bi nga yor yaa ko moom waaye ni nga ko moom yi moo daganul moomin moomin wu demee noonu nag mooy woo xam ne sañ nga ci tasawuf sañ nga ci def lu la neex tabax nga ci jàkka ah loolu yi nga def de lu baax la jullit yi julli nañ ca danañ am tuyaaba seeni julli baax na waaye ndax yow lii nga def am nga ci tuyaaba ñu ne la déedéet inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiban yëf yi wér na waaye duñ ko nangu nag su boobaa duñ ko nangu waaye nag bis boo demee ba tuub fi tawfiq yàlla di ñëwee mooy yu baax ya paase woon ci ngëneelul suñu borom tabaraka wa taala daf la koy delloo sil moo tax kenn ci yi dafa dikk di tuub si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah tuub nga ak li nga jiitaloon ci yi lépp te booba tuubagut ndax dafa tabe woon ah, adi ibn xaatim dafa doonoon ku tabe ci même ba mu doon doonee yéefar di woo ay gan di leen dajale di leen jox ñuy lekk waaye loolu lépp amul njariñ parce que du ci lislaam borom bi du ko nangu waaye bi mu tuub see yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bég mu ne ko ah tuub nga nag ak yiw wa nga daan def kon yiw woowee dañ ko koy delloo si ki def lu mel noonu ba noppi dem bi jëmmi jamono mu tuub nag jaayatul sàngara tuub na doon na jullit jub na baax na léegi loolee mu defoon borom bi tabaraka wa mën na ko koo fay waaye nag jamono yi mu continué nekk ci loolu moom du ci am googu fay defe naa loolu daal mooy li ëpp solo Euh, kii def ne dafa bëgg exemplaire ci kii bu français bi dana ko mën a am insha allah ci sàkku ndimbal nag moom xanaa ministère bi lañ koy jox moom ah, ah déet ndim ay ndimbal moom dafa la ministère bu dee bu dee lu jëm ci wàllu sàkku dara lu jëm ci poche moom ah waaw dégg nga kon ñu ne na bind ministre bi yow mi sàkku ndimbal kon boog euh, wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ñu xaar tuuti waaw